Senclic yéen ñi abonné gul abonné ak gaaw activé cloche bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf. asalaamaaleykum wa mbokk yi seetaan seen Senclic TV ñu dellu siwaat ci rubrique bi ñu tuddee daara yi mu mel ni yàlla dafa àtte ñu ñëw fii ci cité millionnaire. ci ay xale yoo xam ne dañ doon jàngee ci daara alquran bu nekk fii ci siteyi yi mu aselem Grand Yoff seen sëriñ di Mouhamed Cheikh Ahmed Tidiane bi tey Chérif Mouhamed Chérif Mouhamed bi tey nga xam ne mooy sëriñu daara ji yàlla ci ndongo yooyu mu doon jàngal moo am ci ñaari ndongo yu wàcc alquran jamono neexul waaye waajur yi ñoo ne il faut que ñu berndeel leen looloo waral nag waa Senclic TV émission yu yu mel noonu wala jetaay yu mel noonu amuñu beneen jetaay bu gën a rëy boobu looloo waral tey ñu ñëw fekk leen fi bu ko defee ñu jël xale yi ñu wax ci li ñu wax ci alquran ndax xam naa ne li ko dalee faate ba minal jinnati wa mun mënuñ ko def waaye symbole la ñuy joxe rek wane na ñoom mokkal nañ alquran dana am luñ ci jot leeral beneen bi ci des ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi jikkaan fóore yi toog ñoom it dina am luñ ci apporter pour wax importance su alquran li ci Seyduna Muhammad waxoon beneen bi ci des mooy li nga xam ne sunu mag ñu baax ñi taxawee nañ daara ndax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ni xayrukum man taallama alquran wa allamahu ñoom ci la ñu jóg uti daara kon nag loolu daara yooya nag benn la bii benn la ci yooya kon bu ko defee ci lañ leen di jox rek eh, ki nga xam ne mooy oustaz bi wala sëriñu daara bi moom mu dana def présentation bi bu ko defee buñ paree rek ñu dugg ci émission yi incha allah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ku fi teew ci jataaya sant yàlla bi nga xam ne jataay la boo xam ne waajur bu joxe woon ay doomam ñu góorgóorlu ci ba yàlla dimbale ñu may ñu kon dama ne sant yàlla la Seydi Ousmane al imam ci laaj yi ngay laaj ñun ñun ñoo jiite daara ji ci jiite boo xam ne pour liggéeyal alquran ak suñ doneef muy alquran daara ji ñu ngi ko sos la premier octobre deux quinze boobu ak léegi su ma juumul ci sama natt ñi ngi war a am lu mat eh, ñaar ñi mooy juróom ñaareel wala juróom benn ci ñu wattu alquran kooku ñu ngi koy sant yàlla daara ji nag banqaas la ci daara ju njëkk ja muy suñu maam ndax suñu maam Abdou Assa bi tey kenn ci doomam yi jur suñu baay moom lañ tuddee daara ji muy tafsir Mouhamed bi tey Euh, Abdou ma Abdou moomu bokkoon na ci ñi dalaloon maam Alhaji Abdoulaye Niass di bàyyi ci Baye Niass ca Koosi Mbitteen foofu la mën nañoo wax ne foofu la daara ji soqeekoo euh, ci sa laaj bu njëkk daal ci sa laaj bu njëkk daal man sa laaj bu njëkk daal mën nañu wax ne daal daara ji ñu ngi ko sos date bii ma la wax le premier octobre ki ko ni ki ko tuddee muy sunu maam tafsir Mouhamed bi tey. laaj bi ñu bëggoon a xamit ndax daara ji daara ku ko ubbi dana nga war a xam wala ñu fay wala ñu fay jàngee danañu xam ci ban riwaaya ngay jàngale alquran ndax doonte sunu mag ñi li ñu ëppoon ci li ñu jàngale mooy riwaayatu warsh léegi nag dañuy laaj ndax yow warsh ngay jàngale wala xaaluun wala xafs. alhamdulilah comme ni nga ko waxee beneen yoon. Euh, Saalum liñ liñ ci xamoon ñu jàng yëpp warsh lañ leen jàngalee ñun ñii moom lañ ñu doon jàngale waaye daara ji moom euh, bi raayati Hafsin an Asim moom lañ fay jàngalee ci xale yi fa nekk waaw boobu tontu la ci laaj bi. bi ci desit bëgg nañu xam daara ji maanaam xale ku ku ne alquran ne xale kon dana mel ni pour xale yi gaaw mokkal ñaata taala xale yi def pour mën a mokkal. ak est-ce que ci biir mokkal boobu dana am ay difficulté wala dana am ñu gaaw a mokkal wala dana am ñoo xam ne dañu yéex a mokkal. waaw loolu nga laaj de dëgg la jàngkat yëpp danañu jànkuwanteeg moom am na ci ñuy gaaw a mokkal waaye am na ci ñoo xam ne duñ gaaw a mokkal ndax ni yàlla bindee mbindee fii ñu sutante noonu la xel yi sutante ci njàng mi waaye ñu ngi sant yàlla ba ñuy ubbee ba léegi amaguñ ci ndongo bu romb ñetti at te mokkalut bu ñetti at yi daal buy teg moom. dana teg weer wala ñaari weer muy ñaar ñii ñuy nar a déglu tey ñu mottali si ñetti at yu mot sëkk yu teg ay semaine la motut weer ci lañ mokkal kooku mata ba dañ koy sant yàlla waaye nag du tax mukk tënk ci ne ñetti at bu ko fi amee mokkal déedéet kooku ndimbalal yàlla la nit mën na fi am jurómi at saxta te du mokkal fekk yàlla moom moo bindee noonu moo tax dañuy wax ne daal duñ mën a wax ne dañ fi am temps mokkal ndax boo ko waxee ki la andil doomam mu am fi temps bi nga ko waxoon mokkalut kooku dana am baat bu la jam moo tax duñ jiitu yàlla mukk ci programme am waaye ku ñuy indil doom nañu ndax ñaata at la fi diire mën ko xaw ma ko de loolu laa koy tontu waaye danaa danaa la wax nela la gis naa fi xale bu am ñetti at mokkal waaye nag du ma tënk ci ne ñetti at dana ko fi am mokkal loolu ci taat bi la bëggoon nañu xamit ku tudd daara wax ay coono coono yi mën na aju ci wàllu dëkkuwaay ba coono yi dana aju ci wàllu surtout wàllu finance ñu buggoon a xam ndax muskilaat yooyu bu amee ñu bugg a def appel ci képp koo xam ne daara ñor na la nga xam ne mën nga defal te yàlla tax su boobaa nag ñu mën leen a lancer appel boobu kon bu ko defee lépp loo ci am ci ay muskilaat nga mën ñu ko wax bu ko defee ñun ñu xool nu ñuy def def ci appel képp ku ci mën a jàpp nga jàpp ci. alhamdulilah beneen yoon ci muskilaat yi ngay laajte ci daara daara moom moo bindoon noonu daara internat moom liñ ko xamee mooy ña fa nekk dañuy fay waaye daara joo ci dem boo ko xaajee ñetti xaaj ñetteeli xaaj ba kenn fayut ka amee daara ja mooy def ay effort fexe ba daara ji dox te dana rus a génne di laajte ñu ne kii internat la amee ba pare di laajte. moo tax coono yi ñuy dëkkee yi ñu nekkee mënuñ koo nettali nit benn par benn ba mu jeex ci gàttal daal danañuy sukkandiku ci yàlla ci ndimbalal yàlla ci suturaam ci li ñuy doxee waaye duhut lu ñuy am di denc da ngay am soxla sax doo ko mën a faje mbubb mu rafet sax boo ko solee dañ la ko solal waaw buñ jàpp ne mukk dafa am lu ñuy faraatu ci daara ji di def leneen waaye au contraire dañuy lijjanti ñëw dugal pour mën a dund ak booy xale yi fi nekk ba mën a jàng loolu daal muskilaat yooyu bokk na ci ak euh, muskilaat dëkkuwaay daa feek amul dëkkuwaay bu moomal boppam mi ngi ci muskila su fekkee am na dëkkuwaay bu moomal boppam nag coono yenn yi dana mën a wàcc ci kawam loolu daal tontu la ci euh, appel bi ngay wax ñi la ko ñi ko tontu wasalaamaaleykum daara am na ko ñuy wax lancer appel ci képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci gox bi te diina ñor la am na daara joo xam ni mu ngi fii ci biir cité yi soxla ku ko dimbale dimbale bi mën na nekk xaalis wala ñoo xam ne seen jot seen loxo jot na fa ñu xam ne fa ñoo yor pouvoir bi lañu ca mën ñoom ñu jëm ko def képp koo xam ne daal alquran ñor na la diina ñor la ñu ngi lancé appel ku mën a jàpp ci daara ji nga ñëw jàpp ci ndax am na ñoo xam ne li leen tax a jóg mooy xeex daara xeex daara moo leen tax a jóg kon nag képp koo xam ne alquran nag ñor na la kon ñooñu ñu war a taxaw def leen faas lépp luñ ci mën ñu taxaw ci ba daara inchaa allahu yaalu wala yula alayhi ko defee laaj bu mujj bi nag mooy nga wax daara ji fan la nekk ak ci ban côté la nekk ci biir euh, cité yi bu ko defee képp koo xam ne bëgg nga faa ñëw yi tamit ñu jo mën a joxe numéro téléphone boo xam ne dañ leen mën a jot pour am ay information alhamdulilah alhamdulilah beneen yoon euh, daara ji ngay laajte tudd daara tafsir Mouhamed bi tey mi ngi asilem Grand Yoff la numéro 269 euh, ku bëgg contact ak ñoom boo jokkoo ci numéro yi ma jox danga leen jot 77

ñu ngi HLM Grand Yoff en face stade bi villa numéro 269. salaamaaleykum jërëjëf incha allah mbokk yi yooyu rek lañ bëggoon a ubbee jotaay bi ñu xam daara ji bu ko defee képp koo xam ni yu ko ëpp boo jokkoog ñoom rek incha allah di nga am orientation bu la fa yóbbu kon nag yàlla ñu si yàlla defal tawfiq yàlla na yàlla barkeel yëpp incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidi alawalina wal axirin sayidina wa nabiyina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi alaxyar wa saxbihi alabrar wa baad ayuha alixwatu wal axawaat asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kaddu gi moom du mën a dem ci kaddu gi loxo yaaram tey dañ koy jéggalu rek incha allah ngir waxtu wi waaye daal ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nuyu ñëpp nag di jiital kalifa yi di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw ci munaasaba bu rëy bi te mooy xale yu seen waajur joxe woon ñu jàng alxuraan ba yàlla dogal seen alxuraan yëgg na tari nañ ba fi mu ne leen dese rek mooy mottali téereb yàlla bi daan yàlla barkele leen barkel seeni jur barkel seeni sëñ daara yàlla bëri lu ni mel yàlla saxal ko ci réew mi te yaatal ko fi yàgg naa am ci réew mi mooy leer ak réew mi yal yàlla saxal ko fi yal na ci yàlla di xool ci munasaba yu mel nii di demee lépp loo xam ne lu ñu ragal la mooy lu xam ak luñ xamul ay lépp loo xam lu ñu yóotu la ci ak mbaax na yàlla di xool ci jotaay yu mel nii ba ñu koy nàddil ci barke alquran léegi nag comme dafa guddi moom dañuy jublu ci programme bi directement rek yoo jox ne xale yi mokkal ñaari xale lañ yal na yàlla barkeel leent te leen ñuy ay mag alxuraan yàlla sax ki seen dënn yi yàlla ci xam-xam buy jëriñ tegu yàlla nañ dem ba koy defal seeni doom ñu koy defal seeni doom ak seeni doom seeni sët ba pencam yàlla yàlla defal ne ko ñëpp nag suñu njaboot ñu ne ci barke alxuraan présentation bi yenn kilifa yi incha allah danañ ci ñëw ca kanam waaye mubasharatan dañuy dem rek woo xale yi ñu ñëw ci ci liggéey bi incha allah daka tegu tegu ca xale yi nag ma njëkk cee woo ab taalib Mouhamad Nazir Toob ak mbokkam Mouhamadul Hadi Toob moom ñëpp nag di doomu suñ mbokk mu baax mi Sayid Mouhamad Toob ak Sayida Ami Hor doon njàngee ci. daara tafsir Mouhamad bi tey te suñu mbokku Cherif Mouhamad bi tey jiite ko nekk fii ci HLM Grand Yoff seen àlliwa yegg na ni ko waxee woon léegi kon lu la dese rek mooy ñu mottalee kaamil bi ñu doon tari dañuy dégg nag ci borom xam-xam yi ñu ne fu ñuy wàccee fu ñuy mottalee alxuraan ab lim bu baree bare ci ay malaaka danañ ko fekkee di wax amiin te ñaan ak malaaka moom xam ngeen ne moom duñ ko delloo moom kon nag ñun ñëpp nañ bàyyi xel teewloo suñuy soxla xam ne liñ ñu yaakaar tey ak ëllëg mooy téere bi yàlla bi yàlla nee moo ko wàccee te moo koy sàmm waaye yàlla ñu yàlla boole ci ñim koy sàmmee ñu ne dina ci dënn yi ak ci téere yi ci barke alxuraan kon daal kàdd yi bala ñoo jox kenn kàddu kon dañu njëkkee Chérif man damaa man dañuy jàng bala ñoo xat mu ñu jël kàddu yi door a mujjee xat bi nag waa xamul ndax nag من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا

liñ dégg gu moom xam nañ ne rek li passé rafet na macha allah yal na yàlla barkeel alquran moo jëre ittiwoo tey ak ëllëg yal na yàlla bentu cheikh al islam cheikh ibrahim gannaaw ku gis vidéo yu mujj yi nga xam ne mooy laxasaatam yu mujj yi nga xam ne ittiwoo alquran rek moo alquran rek moo jëre ittiwoo dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla ko alquran xam mu ramban guree googu mu naan iqra wartaqi warattil ba xadis ba jeex yàlla bu ump sayda mariam amin ñëpp nag barke alquran gone yi alxuraan njàng mi rafet na sas baraam jub laa déggoon mu ne rahimahullahu wa radiya anhu li ñuy warante rañaan mi gaaw na di ak liñ ca wax yëpp ngeen xam ko mu ne ñi koy warante dañoo fàtte woon ne boo fekkee xale buñ yéegal ci étage bu sore sore sore gudd loolu ne bul yéem xale bi ni kii mën naa yéeg di waaye yéegal kan kan ngay yéem ki ko yéegal ngay yéem yàlla moom nag mooy borom alxuraan moo ko wàccee te moo koy sàmm moo tax daal képp comme def ci moom alxuraan rek nañ jàpp ne nekkul nitu kese nekkul nitu neen yàlla bu ñu mbootum alxuraan ëmp da ci yàlla déggee ci ay may ci ay garaat ci ay daraja ñu ëmp yàlla bu mu ëmp suñuy njaboot yàlla ëmp waa réew mii ci barke alxuraan ku dégg gone yi ni ñu jàngee da nga xam ne kenn jàngal sonn nag la bëggoon wax léegi ku ma seen sëriñ daara Chérif liggéey bi rafet na yàlla yàlla xeeb dolli yàlla yàgg yàlla na résultat yu ni mel daara gi dem ba am baraba boppam bu yaatu markas bu lépp xaj dafay jàngale dafay yore doomu jullit ñi ci barke alxuraan léegi nag kilifa yi teew ci jotaay bi dañuy commencé di jox kàddu ñenn ñi nga xam ne nii bind nañ seen tur ci kayit gi ma nii man njëkk ci tudd alxaaji Saalix Saaxo mu jox ko kàddu moom incha allah su paree xadatan min lisaani yabqo qawli yaa mata axdari lana bi asal mahdari wa taati fi bi nasari taati lana bi safari kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku si ne turam ak santam di leen siyaare di leen ndokkeel di leen bal di leen bal di sant yàlla ci mbaaxam bam ñu boolee ci jotaay bii muy jotaay bu ñu mottalee alquran te jotaay bu ñu mottalee alquran amul sikk ne lu fa waaye ñaan yàlla dana ko nangu ñu ngi ñaan yàlla si barke jotaay bii mbas mi ñuy dégg ci àdduna bi yàlla yàlla yëkkati mu jógee bi ba faw ba duñ ko déggati ba pencam yàlla ñim dal yàlla nañ wér ñim dalagul yàlla bu mu leen dal ba pencam yàlla ñu ngi ñaan yàlla dëkk bi yàlla fi yàlla defal jàmm def fi la ñu ngi dugg ci at mu bees mi ñuy 2021 ñu ngi ñaan yàlla yàlla na dàq miñ génnee mboolem jafe-jafe yu amoon ci yàlla na mujj soppeeku ak yos ak yusra ay yusra yu bëree bëri ci at mi ñuy dëgmal ak yëkk yi ci kanamam yëpp ci barke yonent yàlla maam salaa salaam dañuy sant yàlla bu baax di ndokkeel xale yi doon tari alxuraan ba des ci mottali bi di ndokkeel sëriñ daara bi waaye rawatina seen woy jur muy moo toog ku jara ndokkeel la ku jara ñaanal yàlla la ndax ñun ñoo moom ñoo xamee bi mu dafa sampoon daara woon pour xale mi xam mu samp daara ca dëkk ba góor góor góorgóorlu ci lool di ci def xalalam bu dee téeméeri junne la daanaka mooy def juróom-ñett fukki yëpp wala juróom-ñaar fukki dëkk ba def fanweer waaye gis saalum saalum lépp loo xam ne ni yow boroom dëkk tàmbalul ko imaam tàmbalul ko ak ndaw bu ko tàmbalee ca dëkk ba rek soo amul ndimbalal yàlla du dem ñu nekk si ay tànkam di gor waaye mu xam ak volontaire ba xenu gunam yi indi fii ba lii mu xam ko tey kon ku jara ndokkeel la ku am fierté la man damay kontaan si bés bi ndax bés bi waroon na waa dëkk ba ñëpp toog fii déglu xale yi seen jàng ma alxuraan dañ xam ne lii la bëggaloon doomi dëkk ba yemutoon si ay doom doomi dëkk ba ko bëggaloon waaye doomu aadama li mu am du ko xam dañoo réer maanaam nit ku ne jox ko wàcc waayam xam na koo xam ne lam mën a liggéey soo bëggee mu dox rek jox ko ko mu liggéey waaye su ko lu mënta liggéey soo ko joxee rek bu yàqoo yàqu yàq taw moom jëloon na volontaire pour liggéey ci alquran foofa ñu xeeñ ko xeex ba métti lool xale yii dalewuñ ci shérif ndax ñaari ustaas wutal naa ko ko ca dëkk ba ñuy jàngale ba mujj gi yëf yi am ay lëj-lëj lool ba daara ja doxe noonu tas baaba géy mais suñu rakk la suñ doom la ci xale yi moo moo leen dalal baasin ca këram la ne woon jàngale fa ak keneen beneen ustaas moo ko fa jiitu ba mu fa jógee Baba Gueye mais Babacar Gueye ñëw fa jàngale fa moom it at wala ñaari at yëf yi bëri ay tolof tolof lool waaye sant yàlla ba nga xamee ne xam na wallanteeru bàyyul xale yee ñu foofa ñu mel ni ña fa nekk duñ mokkal mu jël volontaire jël ci ala andi leen fii di ci def xalalam di ci def ñaxam di leen guddi gis guddi ak bëccëg lu xew la mu dégg lu am mu xew ba yàlla may ko lii dëgg-dëgg dañ koy ndokkal di ko ñaana yàlla lii yal na ko jik ñii seen rakk yëpp yal nañ mokkal alquran yëpp nañ yàlla na ko fekkee te yal na teraanga alquran wàcc si ñoom barke alquran wàcc si ñoom duñ ci guddal wax ji dañuy wax ne rek kii man ko sose woon ca dëkkam yàlla def wéyut mu continuer indi ak njabootam fii di ci sonn ba yàlla may ko lii kon lii jombut ko ku xam volontaire la te lu waay di mën a sonne lu mooy lii rek la ngay sonne neen la lii lu jara sonne la jël sa guddeeg say bëccëg saala yëpp nga def ko sa doom pour ñu xam jamono bii ku ko yàlla may nga di ko def jar naa ndokkeel jar na ñaana yàlla jar na euh, fierté bu baax a baax a baax ndax dañuy wax ne ku def li ko war moo war moo war na waruñ koo gërëm waaye koo lañ war a gërëm ndax am na ku nekk sa pep te deful li ko war kon yow boo defee li la war war nañ laa gërëm ci loola kon toom ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla bu baax di wax ni it la Baye Amadou Thiam daan wax fa lii jar na sol weñ di dee ma ma digal leen euh, wëluur woo xam ne duñ ko sàcc du maxe du réer ñu ne ko wan la mun a mooy doom ji mokkal alxuraan kon seen yaay it am na càq boo xam ne du sàcc du réer duñ ko maxe du mosa dóg ci doxam gi mooy doom ji mokkal alxuraan ñu ngi koy ndokkeel moom it seen yaay bu baax a baax ndax jigéen ju baax mooy am ay kaang ndax doom bu mokkalee alxuraan xam nañ ne yaay ju yaay ju sonn la yaay ju baax la ñi ngi koy sant di gërëm di ndokkeel ñi fi ne yëpp di ñaan yàlla lii yàlla na ko yàlla saxal daara ji yàlla na fa ay kaa kaangi kaangi génn ñu yàgg di ko fekkee ba péncam yàlla ñi ngi sant di gërëm jaru ñuy guddal wax ji loolu rek lañ doon seede ci topp ku baax la ku bëgg lu baax la bëgg lu baax moo ko tax mu màng doomu indi fii ne lii sasoon na ko foofa doxut mooy nu ko indi fi ba yàlla may ko ngi koy ndokkeel bu baax di ndokkeel way jur seen yaay itam sonn na ndax li ma wax rek jigéen boo amee doom ji mokkal alquran dëgg-dëgg koo tëdd doon dal nelaw mi ngi doon góorgóorlu bu baax waaye ñu ngi koy wax na doolee góorgóorlu ilal amaam ilal amaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant ñu ngi gërëm waa ko dara way la si woon xale yi kon sa dégg ma oustaz Barham Diop radiallahu anhu mu ne bàyyi mas na waaye bis xam na ko ndax nee na xale mi lu tax ma ñëw fii mooy dama nee na a rawale kon yàlla ñu raw ñu nit bokk ci raw rawale ngoogu yàlla nañ ci rawale ñu ñu ne suñu yëpp na nga nag la shukra ala waajibin la yaarami di wax moom comme dafa may moom mu jaddid la moom moo mu ne nag laa shukra illa ala waajibin moom Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñaanam ga yàlla bum yàlla bum ñu ump wala tajaalan xifza kitabika alkarimi karamati ila liqaayika alazimi lii ci barke boobu la yàlla buñ dañ di barkeeloo ci barke wax jooju ba pencam yàlla ci barke alquran radiallahu anhu wa rahma ma jox léegi alxaaji abdu géet la wala ngéet ngéet kon aw kay waay sayd abdu bismillah allahu ala sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk leen nuyu te di leen siyaara di ndokkele ci bés bu sell bii di bésu alquranul karim di nuyu di siyaara wayjur wi di suñu nijaay di mottoog di ko ndokkele ci xew-xew bu toll nii ndax dafa bokk ci bés yi nga xam ne nii moo gën a taaru ci islaam te Maolana Cheikh Cheikh Rahma Niass radiallahu taala anhu dafa doon wax ne bés bi gën a taaru bokk na ci bés yi gën a taaru ci moom mooy bés bu njabootam di tere alquran kon tey bés bii dafa aju ci bés boobu noonu yàlla moo wàcc alquran daal di wax ne moom alquran man maa ko wàcc maa koy sàmmal sama bopp mu mel ni dañ koo laaj wala ñu laaj sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan lañu sàmmee sàmmee alquran mu ne du ne dañuy daaj ay kees dugal ko ci wala dañuy tabax ay tata denc ko si wala dañuy def bànk dugal ko ci waaye ñu ngi koy def si xoli doomi jullit yi ñu di ko jàng ba yowmal xiyaam ñu di ko mokkal ba yowmal xiyaam tey ko tey suñu sang yu baax yi yàlla booleen ci loolu xol bu fees la waxee dañoo am kontaan trop su teewee lu mel nii suñu mag ci at di alxaaji Saalihu Saaxo wax na ko bu baax si taxawaay bi nga xam ne suñu nijaay am na ko sa dëkk ba si jéem a dundal islaam si jéem a dundal sariya si jéem a dundal xaqiqa waaye tolloog ay galgal tax mu jëlee leen foofu ba fa doon sumb demewut na mu ko bëggee woon waaye dana dem comme am na njaboot bu mokkat rek incha allah rabbi dana dem ndax alquran caabi la si buntu xam-xam ku yàlla may nga mokkal alquran dara jombatu ci kaw suuf loo war a mën a xam rawatina nag sa at aas yi ñu ko am ñoom at yu ndaw yi kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na leen jik bi jaay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu doolee góorlu si njaboot gi ñu doolee góorgóorlu si njaboot gi si taxawu leen ci biir ci biti ndaxte kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala Sayd ibn Abi Waqaas wax na ne dañoo toog bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak ñun wala Abbaas al-Ghiffaari yi Hasan ak Huseynu radiyallahu anhuma yéeg ci kaw yonent bi sallallahu alayhi ñu yéegee ci kaw yonent bi sallallahu alayhi yonent bi bàyyi leen ci kawam ali nangu ñoo wàcc ba waxtaan wi jeex ali wàcc ñu ngi ci kawam seydina ali yu dugg si rek ali gaaw di daal wàcc muy Asan ak Hussein yonent bi laaj leen lu tax ngeen wàcc mu ne suñ pàpp moo dugg si dañoo ragal mu dóoruñ sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñii dañoo nekk sama fulóori xol nekk sama kawari bakkan ñii bu leen laalati bay kàddum di daanu jibril yi salaam wàcc na ko sallallahu alayhi wa sallam dëgg ñëw na ne na bàyyi Aliou mu yar xale yi ndax kat yar xale yi dafa nekk loo xam ne lu jaadu la te yar gu mu leen yàq moo nekk seen tranga mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne way jur defu lu doomam lu toll ni yar ko yar bu rafet yar bu yar bu rafet nag am neen yaakaar ne dana amee ci daara ñu yar la fa jàngal la alquran ba nga mokkal buñ la jàngale la su tegee rek yar bi dana yomb kon nag ñu ngi koy ñaanal xale yi yal na ko leen ko yàlla defal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemul foofu xam nga ndeysaan jàngalekat responsabilité bu mu yor amul sañ-sañ ñu jóg te di ko kàddu mu di ko tënk waaye dafa woote ne yaa ma'sharal muslimiin addiboo awlaadakum wa allimuhum kitaaba na ngeen ja na ngeen yar seeni doom ngeen jàngal leen alquranul karim waaye ngeen xamal leen seen bopp ñu xam ñooy ñan comme ni ma waxee léegi na alxuraan caabi la si buntu xam loolu la nekk. kon daal ñu ngi bañ a guddal xëy na ñu toog ñëpp bëri na ñu war a jël kàddu waaye daal loolu lañ doon si kàddu di nuyu di ñëpp di baal àq ñëpp di balu àq ñëpp. waaye di am kontante lool lool lool Seydi eh, Sarif Mohamed Thiam eh, Mohamed Biteye ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara te di am kontaan ci lii di la ñaanal yàlla. yàlla na sax waaye xale yi itam yàlla na am seen rak mboolem rakk bu topp seen ginnaaw yàlla ko yàlla may mu nekk afisul quran waaye mu nekk itam nag fuqaha xam diine xam nu mu jaamoo yàlla waaye xam borom itam di jaay si ginnaaw moom mag yomb na yàlla yàlla def ko di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu may wax ne bu dee ba salaam ala ñi ngi ziyaare mbooloom ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen di jiital ci nuyoo bi sang yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi daanaka ñun suñ kàddu sax mënoon na cee ñàkk ndax aj saaxo mi liñ waroon a wax moom wax na ko te li ñu ci kii rek moo ne yàlla daf ñu nattu ñun lañ Chérif owoon ak papay xale bi pour ñuy déglu xale yi euh, liñ ci wax du dara lu may seede xale yi mokkal nañ tari nañ tari mu rafet comme niñ doon taree nii noonu lañ ko doon tare ndax ku ci nekk dañu xëy di déglu Mouhamed Nazir lañ njëkk a jël premier jour xaj kaw bi ñi ngi commencé moom 10 heures ci suba ñi ngi commencé ak moom 10 ci suba ba 2 heures mu jeexal xaj euh, mu jeexal kii bi xaj kaw bi ki ñu commencé ak moom ci ngoon ba 10 heures ci guddi maanaam même bu dee test la sax du test bu fala fala liñ tari moo ëpp liñ tariwut te dañ ko tari ci maxaari bu leer ak tajwid bu rafet bi neex bi nii ñaari fan lañ leen déglu bu ci nekk 10 heures la ñuy commencé di euh, kii bu mujj bi rek lañ fa teer a jógee te 20 heures lañ fa jógee ko kon Tarima rafet na kon nag ci loolu ñu ngi leen ndokkel ci jotaay bii nii di gërëm shérif euh, bi nga xam ne moo bàyyi mboolem ay itteem tey àddina bi moromam yi ñu lu nekk mais mu bokk ci ñi nga xam ne yàlla jagleel na leen pour ñu sàmm alxuraan ji ba dugal ko ci dënni ndaw yi ndax xale yi nii ñetti at rek lañ fa am bi ñuy dal ci daara ji man seede laa ci ndax bokk naa ci ñuy wax seen papa ne ko mu dugal leen fii li sëriñ bi wax dëgg la waaye tey jii ngëneel doomu aadama dana ko am yéene jox ko ay nit mais ndax nit ñi danañ ko soxla jël ci yàlla Muhammad ngëneel kese la mais li ëpp ci nit ñi nanguñ ko jël ñi yàlla jagleel rek ñoo ko jël lii jagleel yàlla la ci moom teraanga ji dëkkam la ko yéene woon ay mbokkam la ko yéene woon mais lii la yàlla def ndax pour xamal la ne teraanga ji ñoom sëñ Daara Omar Lo ak euh, sëñ Daara Seck ak Baye Wade ñoo sampoon Daara jooju. def nañ fa conférence ñetti yoon ñoo xam ne dañ fay dem di fa def mudaara ba nga xamee ne waa dëkk bi bëgguñ laa ko wax na ko génneel sa doom boo bëggee ñu mokkal alxuraan parce que ñoom xamuñ leneen lañ xam pour ittiwoo jàngi xale yi imam Mot Cissé la njëkk dem pour dogal leen ci internat am mu ne ko léegi dañuy ran fii ak at. ma ne ko loolu day yàgg waxtaan ak shérif moo tax bi ma ñëwee keroog di leen déglu ma ne ko lii sant yàlla la ci ñun kon nag ñu ngi leen di gërëm di gërëm baayam itam di gërëm seen yaay di ñaan alxuraan ji yal nay bar yal na ko yàlla saxal ci ñoom te yal na yàlla defal bar defal leen barke barke yonent yàlla Muhammad jërëjëf lii rek lañ amoon nañ ciy wax moom seede bu dal xel la te li ma dégg ci njàng mi rafet na lool lool lool lool te moom nee na njàng mi yëpp alxuraan ji lépp doon nañu ko jàngee kon gàcc gàcce ngàllaama shérif waaye gàcce a xale ak seen waajur ñoom it nag barkeb alquran taxoon na gën jëmin def maye ki nag bu ñu bëggee ñetteel kon bu ñu yóbbu xaalis te waroon ñu mën a may <laughs> waaw laaj nañu waajal amul nañ Seydina Omar radiyallahu anhu daan na wax Aba Moussa al Ashari yi da juum ma ci bi léeg-léeg mu ne ko fàttali ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax kaddu man fa ñu doon kaddu rek sahaaba yi toog waa ji commencé addu sa sahabil jalil ngir alquran yonente bi na mu woon waaye nam daan yeggee ca biir xol ya kon alquran kon dañ koy rafetal man lam yataganna bil qurani fa laysa minna njàng mu rafet mi dëgg la jëfe mooy lubbu lubbu mbir bi moom jëfe ko waaye nag jàng ko jàng bu rafet tim tajwid bu tegu ci yoon moom it nag kenn demul mu des de dañ ci mën a indi ci ay seede bari na lool lool lool lool buñ fàttali ko taarix ak tey kon nag gone yi barakallahu fikuma ma jox kàddu gi maam jibi toog alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare eh, di yitati nuyu bi sëriñ daara bi tëriloo xale yi di nuyu seen bay di nuyu ñëpp eh, di sant yàlla Mor sama doom la man maa ngi dëkk Saly moom mi ngi dëkk Woybouré eh, liñ ci jàng rek mooy dëggu am solo dëggu ko may lii daara jëm bëggoon def taxawul waaye lii yàlla dimbale na ko ñetti doom moo am doom ju baax ju yées ak ju gën doom ji baax mooy ki fexe ba sa bàyyi defoon yëpp nga def ko ki yées mooy am yar rek ñu daal di mucc te Sénégal ñun yàlla daf ñu defal jagle kon boog yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën a sàmm lool euh, daara yi daal di suqaliku xeex bi métti na waaye dara suñ dëggaloo rek daañ dem kon wax dëgg yàlla wax yu dugg du sant yàlla li ñu wax li mu waroon wax yëpp ne wax nañ ko maa ngi sant yàlla di ñaanal seen yaay di ñaan seen baay di ñaan képp ku fi teew wasalaamaaleykum wa rahmatullah ko doon jàngal nga xam ne dañuy sant yàlla bu baax ndax keroog bi xale yi di dem man ak seen papa ñoo ànd ba ci saas bi xaalis bi jiital man maa ko yëkkati jox ko ko ñu waxtaan ñu ñaan yàlla alhamdulilah bi ñu yàlla dimbalee ba suñu ñaan yàlla nangu na ko bi ñuy tari it première tari man ak euh, Cheikh Baye Cissé mi ñoo ànd ñoo ko teewee tari neen tari moo xam ne man sax tariwuma ko ndax tari li gën a jafe ci tari mooy cuq toog na la taril ma aaya sàngam wala alyaral li gën jafe sax ci tari ci mokkal mooy aliyar tari di dem moo gën a yomb foofu aliyar te macha allah yelanti ko woon ñi teel a commencé kon ñu xam euh, li nga xam ne tari nañ ndax wa ma sayidna illa bi ma alim na waaye loolu yëpp dafay dugg ci xasanaatu min xasanaati Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo waxoon ne bal tajaalana xifsa kitaabaka alkarimi karamati ila liqayka alazimi sawqi wa xubbi fika la yasfi siwa ululi wartixaali yow yàlla wali yu bu ne am na karaama waaye suma karaama yow yal nag ma ko defal muy alquran loolu muy junji wiraasatul muhammad yi nga xam ne am na ko ci yonent bi ne yonent bi karaama yi mu def yëpp mujizaat yëpp waaye mujiza yi gën a muj màgg ci mujizaatam yi mooy alquran loolu dëgg-dëgg bu fekkee yàlla wàcce na ko ci ñii dañuy sant yàlla bu baax di ndokkeel sëriñ bi bi ko doon jàngal ak ñi nga xam ne ñoo ko doon dimbalee ci njàngale mi ku ne xam ne ne jàngale dafa métti rawatina jàngal koo xam ne dafay toppaat di tëri par juróomi si par fukki si dafa métti lool ndax dafay jël sa temps yëpp doo am benn jot bu la nit ñu comparaadu sax danañ la sikk jàpp ne da nga ñàkk aajo ku xewle doo dem fu ñu la séentu doo fa dem dëgg-dëgg jàngale moo demee noonu ndax da koy jox sa lépp mu jox la lenn nga jox ko lenn du la jox dara kon bu baax ñu ngi koy ndokkeel bu baax baax ñaareel ba ñu ngi ndokkeel baayam bi nga xam ne euh, jaayante na ak alalam ak ànd ak dooleem bëriwul sax waaye mu ngi jaayante ngir sàmmanteeg doom yi nii yàlla jox ko maanaam responsable boo xam ne nii ëllëg danañ ko ko laaj ndax lii tey kenn amul payam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne képp ku mokkal alquran goreel nga sa wàllu yaay juróom-ñaar fukki nit sa wàllu baay juróom-ñaar fukki nit te loolu dëgg-dëgg kenn amul payam kon dëgg-dëgg ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax ñu ngi ndokkeel it yaayam yi nga xam ne wax dëgg yàllam kenn demul mu des ndax lii du jigéen ju ko bëgg am ko ku sonnut doo ko am te man nekk naag moom ñaari at yoo xam ne nii wax dëgg yàlla Euh, jigéen ju baax nit ku tumaranke moo koy xam koo xam ne amoo fa yaay amoo fa baay xamoo fa kenn foofu ngay xamee jigéen gu baax ku mën a teral nit ku baax a ngi noonu moo taxoon yellanti ko woon rek ay nawleem teewee lii kerek bi papaam waxee ne ma dama bëgg xale yi tëri ma ne ko wallaay doon na ma neex mu defee ko ci digg dëkk ba ñëpp gis lii teewee ko mi ne ma damaa ñeme wut ma ne ko même dangaa ragal sax waaye boo ñemee woon it xale yi dara du leen dal li leen li nekk ci seen dënn bi moo ëpp doole lépp waaye nag nii la ko yàlla bëggee moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ndokkeel yaayam bu baax jigéen ju baax la muñ kat la sëy kat la man xam naa toog bu baax a baax waaw tooñ kat la da koy tooñ ba tañaxal ko waaye terewut mu ngi muñ rek wax dëgg yàllam ndokkeel naa la am yaama bu baax a baax a baax xale yi yal na yàlla def si ñoom alquran ju sax seen alquran yal na ko yàlla téye yal na yàlla yéen ndax tànnal leneen yaay ju baax ba ngeen waree juddu mu tuddee leen kii mu amee Nazir la ko tuddee kii mu tuddee ko Mouhamadul Haadi dëgg-dëgg macha allah xale bi fukki at ñett la am ndax papaam nee na 2008 la la la la gane àddina kon xale la xam naa ne kii bu fekkee ñaari at la la koy magee kon kii fukki at ak juróom lay am dëgg-dëgg ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ñu ngi guddal sax waaye xol bu fees rek la wa waxee wasalaamaaleykum wara kulli rajulin azimin imraatun azima na ni loolu nga wax ci yaay ji an yàlla dëggal ko tamay ko ñeneen ñëpp mokkal al mujizatul xaalida mooy alquran da nga karaama yonent bu nekk jox nañ ko mujiza yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam li ma waxoon moom dafa leer ma min al anbiyaai min nabiyin illa waqad utiya min al ayaati ma mithluhu amana alayhi al bashar wa innama kana alladi qad utituhu waxyan awxaahu llahu ilaya fa arju an akuna aktharahum taabian yowma alqiyama sama mujiza moom mooy alquran ji moom te nee na yaakaar na ëllëg mu ëpp yeneen yonent yi ñu leen topp kon nag ma ne yàlla ñu yàlla boole ci am toppam ñi may téetaroo ëllëg yowmal qiyaama fekk yàlla gërëm ci barke alxuraan léegi ma jox nag al ustaaz al aalim al ilaami samiyi cheikhina wa imamina cheikh Hassan Cissé te mooy al imam Hassan Cissé Seck mi xam di borom xam-xam di ku am yar teggin ñu xam ko ci RDV rajo Dunia yi boo woon ba léegi ci la télé sax DTV ak RD naka la DTV la de di borom xam-xam bu xam moom yaakaar naa yorul présenté sax présentation sax bu yàgg moom mën na jox kàddu gi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñi toog ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam nuyu bu waaye maa ngi nuyu nuyu bu mooy maa ngi ñaan yàlla jëm yër jàmmam ak yërmandeem ak barkeem yàlla na ko def kenn ku nekk ci ñun. di wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla ci alquran yi nga xam ne moom dajee ak mbooloo mu fi toog di jéggoli itam ndox damaa xaw a soj euh, ñaan naa ngànt ba sonn waaye xam nga comme ay sama sëriñ daara lañ bu ñu ma wax looy mënu ma ñàkk wax lu ci jub rek ngeen xam ne yàlla lu ci dëng na ngeen yeen leen ko ñoom ñu ma wax loo euh, li fi jot a jub ci ay kàddu yëpp xam naa dañ koy doyloo ñaari point rek ci lay wax pour mu bañ a gudd benn bi mooy ci wàllu yar la ndax ñu ngi jàngale ci daara yi te bu ñuy somp daara yi li ko a jóg mooy yare mag ñi jamono bu njëkk ba ñu daan yaree moom mooy daara ji lël bi ak camp bi bu ñu yóbbee xale ci daara ji defar leen ñu jàngut wala ñu teel jàng mbaa ñu am fu ñu toll ñóbbu leen ci lël ba ber leen ca àll ba ñu sori ndëkk bi def ci ñoom jom ak ngor ak lu ñu war a lu def ba bañ jël si xam na ñii ay góor lañ doon arme bi itam dañu fa yóbbu ni defar ko ba xoolam toj ñu doog koo jox arme nga xam ne ni boo ko saaga sax du ko yëgati defar lañ ci jublu woon waaye nag comme ñun lislaam dañoo tànnaloo daara yi ñu di fa defaroo di fa defaree comme mën ñoo jël yar bi nga xam ne moo xew ci daara yi dama koy méngalee na ak koo xam ne da am malaat jàngoroom tëla nga bëgg ko la ko fajal ñu ñëpp ko ci am malaat doo ko tee ci kër gi foo jëm hôpital hôpital boo fa demee du yaa fay nekk ku fay nekk ab médecin la moom mooy xool li nga xam ne mooy yàlla ci malaat bi mu wax la ko te lu mu la wax da ko nangu te da nga ko jox ci mat xaalis dana la wax defal ma nangam tegal la ay condition nga dégg yëpp parce que yow yaa bëgg sa malaat bi daal di wér kon xale bi nga am am na jàngoro ju ju nekk ci moom mooy jikko yow bëgg ñu def ko ci moom comme ni nga bëggee ñu dindi jàngoro ji ne ci malaat bi def ci moom loo xam ne ak wér bi nag bu ñëwee ci hôpital ba moomatoo ko médecin bi su ko neexee mu ne la heure bii doo fi dugg heure bii nga fi dugg su ko neexee sax mu ne la heure bii ñuy faj rek a fiy nekk sa yoon du fi nekk am na ci malade boo xam ne ni amuñ problème ak moom dañuy wax ak moom ne ko bàyyi lii defal lii mu wér kooku dana neex jëflante am na ci koo xam ne danañ passé ak moom foofu danañ dem ba di ko jam pikir muy métti waaye jubluwuñ ci gaañ ko am na ci koo xam ne danañ dem ba opéré ko danañ ko tëddloo nelawloo ko loola pour génn jàngoor gi nekk ci moom la am na koo xam ne bu ñu demee ba xam ne cër bii nii moo jàngoor bii moo nekk ci moom mënuñ koo faj dañ koy dagg pour mu yaram mi mën a mucc waaye yooyu yëpp jubluwuñ ci gaañ ko jubluwuñ ci lor ko dañ ko bëggal njëriñ xale bi ne ci daara ji itam seetlul médecin bi ni mu la doon wax moom la moom la la kii yar di wax ndax moo la gën a xam li ci xale bi médecin buy faj du bëgg ko fa dugg ndax am na loo xam ne ku dul médecin mën na koo dégg sëriñ bi ko yore ak ki yor daara ji ñoom ñoom mën a xam lay ne ci biir ku fa dugg ku ñoom mën nga faa gis dara sa du neex nga dem génne ko fekk yoo yaa yaa bëgg yaa xamul la ñuy def lan la kon moo tax dañ naan laan buñ dugg ci daara ji ñu dul ñuy jàngale bu heure sàngam jotee itam ñu ne xale yi dañuy dallu kon soxlawuñ ko fa ñëw waxtu woowu danañ la wax ne la weer wi am na bis bu ñu la may moom hôpital danañ la ko wax danañ ko respecté kon fexeel tamit bu la parents yi waxee eh, oustaz yi waxee ne la heure bis sangam la ñuy visite nga respecté bis boobu su passé nga bàyyi leen te xam ne ñoom dañuy liggéey bëgguñ ku leen yàqal sëñ bi mujj wax léegi wax na ko ndax nee na la ñuy jànkuwante ñoo ko xam temps ba ñuy def ci xale bi bëgguñ ku leen ko yàqal kon léegi soo fa ñëwee waxtu wuñ la joxut kon nag lañ dérangé comme ni doon dérangé médecin yi ca hôpital ba moo tax danañ la wax heure telle bul ñëw beneen bi moom mooy condition yoo la médecin yi waxoon danañ la wax ne la soxla nañ ci moom nangam ak nangam nangam kii itam loolu la wax pour mu niroog yeneen moromam yi bu kenn gis sa morom ngëneel soxla nañ benn blouse bu muy sol fu muy tëdd soxla nañ fa nangam soxla nañ pat bu muy yore soxla nañ soxla nañ ba mu jeex loolu du oustaz bee ko moom soxlawu ko waaye li ko tax a jóg mooy pour jox ko sa malaat bi nga indi yow te mënoo def ci moom li nga xam ne ni moom bu soxla woon loolu danaa ko gàttal foofu tax xel yi mooy mottali ci des beneen bi moom mooy damay wax ne jàngalekat yi ñun waxuma ñun sax waaye état ji boppam da leen amel àq boo xam ne nii mënu leen ko fay ndax loolu bi ñuy taxawee état la waroon contribuable bi nga xam ne ni ñun baadoolo yi ñu ngi ci biir dëkk bi di ko def ci la état bi di jëlee li muy jox ñeneen moo tabax daara ñu koy tuddee école ut fa ñuy jàngale mu leen di fay di subventionné njàng mi a ah, wax nañ ne quarante milliards la ñu wax de xawma pour pour cent 40 pour cent ci budget bi ci ay milliards mu ngi jëm ci jàngale mi waaye njàngale man lañ koy defal mooy ñoom li nga xam ne moom lañ jàpp na mooy jàngale damay wax ne oustaz yi nii nii bu taxutoon ak ñoom lu bari ci réew mi dana yàqu état fii nii ku fi jóg judd di xale moo la war a jàngal sa éducation moo ko war a yore léegi nag ñii bëgg seen doom yi jàng diine état utalu leen loolu ñii ñoo tax ñuy jàng diine benn bi moom mooy bu leen di jàngal eh, duñ ci xaar état bi fii nii ku fi nekk sa daara ji nga nekk yaa koy fayal sa bopp état du la jox benn dërëm. dund bi ngay def ci xale yi yaa koy def sa bopp état du la jox benn dërëm boîte yi ñuy wax boîte pharmacie nga xam ne xale bu ci am feebar oustaz bi balaa oo ay waajuram day fekk jéem na ba sonn mënu ci dara mu doo koo woo état joxul leen ko bu dul loolu bàyyil ma xale yi ak seen njàng ak seen wér-gu-yaram ak seen dund bi ñuy def ci daara ji te ñu waru leen ko yor yorul leen ko mais oustaz yi ña ñuy jël ñuy jàngalewaat di ay apprenti comme ñoom maanaam ñi ñuy ooyee maître yi war a jàngale seen xaalis lañ leen di fayee ñoom état fayul leen te école bu ci nekk ci dëkk bi fii boo demee état ba ñoo koy fay léegi nag xoolal xale bu jàng fii ci daara ji mokkal alxuraan état na ko ma liggéey bu ma la jox fu muy mujj tax too na ñuy du liggéey kon ñii ñoo koy jël di ko fay yemuñ ci di ko fay de waaye fay bi nga xam ne moo gën ci fay yi ndax fii ku fi jël employé suba lay xëy liggéey bu bëccëgee mu wàcc dem ñibbi lekkam gi muy lekk sax ci place bi su fekkee am na fa dañ ko koy bind su weer dee ñu dagg ko ñi am entreprise wala ñuy liggéey ci société xam nañ li may wax buñ loo waxee ne añ am na fii jours boobu nga dem jël li nga jël ñu ko noté te xaar weer dee ñu dagg ko sa salaire mais ñi buñ jëlee ay oustaz ñoo leen jox fuñ tëdd ñoo leen jox lu ñuy añee ñoo leen jox lu ñuy reer ñoo jox lu ñuy ndékkee te du génn ci salaire bi ñu leen di fay damay faral di wax ne kuñ fii fay mille francs ne dama nga ñibbi ki ñuy fay 50000 wala 60000 moo la ëppale ndax boo xoolee la ngay fay fa nga luyee courant ba nga fay lakk di ko fay ndox ma ngay naan ak lekk ga ngay lekk ak paas bi ngay demee aller retour soo toogee ci biir kër oustaz bi di jàngale yooyu yëpp wàcce na la ko pare mu ngi lay fay weer wu dee te état dimbalewu ko ci donc kon mooy mu ngi dimbale état ci yow ndax moo la waroon gàddu liggéey boobu bàyyil ma xale bi jógee ci daara ji moo ko alxuraan amul liggéey mais ki jàng sax arab ba am bac jamono bi dana université fu ñu ko orienté mënu faa jàngale mënu faa jàngee am fu mu mën a dem fi muy mujj mooy ut fu mu jàngalee te ñii ñoo koy wax kaay ma jël la jàng jàngale donc ñoom ñu ngi yor entreprise yoo xam ne ñu ngi ci uutu état waxuma la ci yar bi ñuy yar xale yi di def ci ñoom loo xam ne ñoom la waroon ñu war a téye xale yi ñu bañ a dem ci mbedd mi mais di jàngal xale yi di leen def jox jikko joo xam ne dañu mën a nekk citoyen yu baax ba pare yemuñ ci xale yi dañuy jàng ba mokkal daara jëlaat leen di leen jàngale woon la kon moom mooy ay entreprise la nekk ci biir réew mi di liggéeyal seen réew sans état di ko loolu nag damay faral di wax ne ku ci jàppul xamal na ko ne yàq delloo ginnaaw waaye nit jàng na fi ba am bac mu ne su ma toogee fii duma am liggéey lu may def mbënn mi ñu ngi ko fiy wax ba yàggut mbëkk mi la xaw ma barsa wala barsax man damay faral di wax yàlla ma yàlla jégal barsa wala barsax xaru la ndax boo ne yàlla tey nga may ma mbaa nga rey ma loolu moom mooy damay am tey mbaa ma mbaa ma jóge fi bindoo sa bopp sàkkoo sa bopp wax naa ne Covid bii nii ñeenti weer yiñ dund wala juróomi weer ku mu yeewu dara dutu la yeeti ndax toog nañ jamono bi yàgg boo xam ne kenn xëy dem liggéey ji te terewul saa yuñ xëyee danañ lekk dinañ naan dinañ sol dinañ sangu te ñu ngi faju di wér. léegi nag suñu demee ba gis ne loolu am na te liggéeyuñu woon kon bu jamono boobu loolu jeexee war nañoo mën a muñ te xam ne buñ ko góoloo yàlla mën nañoo jàppale. te dinaay wax ne duwul nag wax ne kaay leen dem dal ci kaw état waaye étudiants yi buñ toogee état joxul leen lekk joxuñ leen naan fayuñ leen lu duñu wax ne dañuy xaru ji dañuy taxaw ci kanam état ne ko jox ñu li ñu moom médecins yi bu ñu leen fay ñu wax ne dañuy xaru ji dañuy dem taxaw grève ne état jox ñu li moom jàngalekat yi la même chose pourquoi pas ñi ci des ñu def noonu lu mat 400 personne kay yoo xam na ni dañoo dem di di rey seen bopp buñ taxawee fii ne état dañoo ñàkk liggéey jox ñu ko xaalis bi fi nekk bu fekkee mën nga ko wàññi ñu am ci 400 yëpp xajuñ ci pale ba suñ fa demee bu ñu leen mënti liggéeyal ñu rey leen fa sax ñu ne seen réew la ñu doon xeexal ñu baal ma parenthèse la bu ma ubbi rek waaye ma dellu waat ci jàngalekat yi nga xam ne damay wax ne ñoom danañ tax loolu jóge fi parce que ñi am bac ba xalaat a génn suñ amut ñu jàngalee amut fu leen état jël ñu liggéey dañuy wër daara yi di fa jàngale te li ma wax noonu moo ci nekk beneen bi nag mooy parents yi ak oustaz yi jàngale daara ji dinaa wax ne coono bi ñuy daj kenn mënu leen koo fay ci daara weer wu nga xam na ni moom lay gàddoo moom lay séq ak Oustaz rek ci lay yem li ci gën a bëri ma xam ko ci weer passé wul vingt cinq mille francs ci gën a néew vingt cinq mille la ñuy fay wala jàpp ko sax trente mille boo ko woon fanweeri fanweeri fan nga am ci bés bi kon mooy xale bi bët bu seetee mille francs nga def ci moom léegi nag xoolal lam ndekkee lam añee lam reeree yemu ci de waaye am na gute bu muy am ci diggante bi te bëccëg bi dana nangu dana nelaw su yeewoo dina sangu dina lakk courant dina lakk ndox danañ ko fóotal li nga xam ne ne moom lay def ci biir kër gi su fekkee xale bu tuuti la bu yàqe boobu danañ ko defar léegi coono booba yëpp nag ndax benn mille franc mën na ko bi maanaa bu xale bi nekkoon sa kër bëccëg bi li nga xam ne moom la ci moom maanaam mille franc boobu mënu ko kon mooy joxe trente mille jàpp ne def nga lépp defoo ko te am na sax ñoo xam ne dañuy dañ koy ñàkk a joxe far ba pare boole ci di xarab ndax jàpp nañ ne xaalis dafay dugg fekk wallaahi ni ko imaam waxee wala ci gannaaw daara coono kese moo fi ne ndax ku jàng ba pare oustaz Mañaan mi ku ko dégg xam nga ne professeur bi ñu teg ca lycée sàngam mu di fa jàngal oustaz mee ko dafa waxee arab te li muy wax lu leer nañ la amul masque gu ci damm waaye gëm na ne comme fi mu bëgg a jàngal dem fa mënu faa dem état mënu ko jox liggéey mu ne man bu ma toog xaar naa dem jéem a jaamu yàlla fii ba pare liggéey fii sama bopp liggéeyal fi sama réew liggéeyal fi sama diine loolu la loolu la boolante di def moo ko waral nag maanaam la muy def noonu ci loolu la ciy jëlee bu mooyee yàlla ga ci jiitu mooy la ci des loolu moo ci ëpp ndax léeg-léeg mbokk sax indi la doomam doo xam noo koy def mu bëri loolu bëgguma gën a guddal waaye euh, dama ne woon ñaari yooyu laay laay junj pour ñiy jàngale ak ñiy jàng dañoo jël ay malade yóbbu leen ci ñuy faj ñu bàyyi xel ci loolu conditions yi ñu leen jox nañ ko respecté xam ne maa nag ñuy gisee ñoom jamono jooju comme ni ko médecin bi ñàkk a mënee boo demee bloc dañ naa la ku solu tenue sax waxuma la médecin waaye ku solu tenue bi nga xam ne ne weex la sax doo dugg daara ji du ne kër gi ña dëkk dañ fay dugg jamono ju nekk waxuma laa ñi nga xam ne dëkkuñ fi jamono joo xamee ne ni mënoo ñëw wala passé na joxeel sa ngànt nga wax li xew lan la am na nag ñaari gone yi may dégg Alioune Sall di wax neex yoon ni lañ soo mënta dem orange moo nekk xaw yooyu noonu. te nga jéggalu maanaam li la tere woon a ñëw ndax léeg xale bi ñëw ngay ñëw mu di la gis dafay baax ci moom ndax am nañu fa seen parents yi di ñëw su ko defee bu ñu la ñoom mën naa gën métti ñu ne lu tax ak yooyu noonu kon ñëw gi baax dana dimbale xale waajur waajur euh, oustaz bi mu xam ne kii ma jox doomam kat jaral na ko ndax mu ngi fii ñëw bàyyiwu ko rek sànni ko waaye xale bi tam dana def ci moom dana xam ne sama papa mi kat mi ngi may yittewoo boobu ëllëgee ko fàtte ndax am na xale yuy tari ba ñëwee ci daara li seen papa yi suñ génnee du leen neex kooku oustaz moo ci jéngu di def lu mu mën rek ñu bàyyi xel ci loolu te fexe itam participation yi moom mooy lu dul payoor gi maanaam su mënee yokk ñu di ko def naa ko fi jublu moom lu may laayante biir ak samay mbokk rek lu ci leer ci yàlla la lu ci lëndëm na waxoon naa leen ngeen jiñ leen ko ndax ñoo ma ñoo ma jox kàddu gi maa ngi jégalu. kaw daara yi fi mu ne daal li nga wax daal yaakaar naa ne Moussa Baye Ndiaye mënoo amoo kàddu wàcc rek dafa naa ne daara daara daara daal li ñu bëgg a wax li ci daara lépp daal dëgg dëgg jaar nga ci anam gu gu taaru waay anam gu yéeme waay dëgg dëgg dëgg kon ma dégg kenn ndeke daara création maanaam day créer emploi li mu waxee loolu la ah li wax lépp noonu la demee da ngay jël ay jàngalekat jël ay liggéey kër gi yooyu am ñuy jël ñuy fóot am ñoo xam ay murabbi yun sax ñoo xam ñooy ñooy toppatoo xale yi di leen di leen di leen taxaw buñ seen heure nelaw kon ndeke daara yi moom it moom li ñuy wax création d' emploi daf cee bokk moom it kon macha allah te nag lépp nag budget bi ñun bokkuñ ci nag ñun kon nag mu rek te jàpp yàlla moom yàlla moom ko ànd ak moom yàlla na ànd ak ñun rek ànd ak ñun rek moom lépp incha allah baax rek dëgg lëg lépp effortu sëñ daara bi la ak ñu koy jàppale barakallah fii ka Cheikh Imam kaddu gi rafet na macha allah waaw mu ne borom oto bu rouge bi ci gannaaw fi jotale nga xam dëgg-dëgg lottu nañ sax ci commentaire commentaire ko dëgg-dëgg baaxoon na rek autorité étatique yi fekkee lu mel ni kaddu gii nii waaw comme ñu ngi koy jël ci média yi moom njortu njortu rafet ne rek dana yëgg ca waaw kay ca ñoo ko war a dëgg incha allah ñu woy nag léegi dem ci jigéen ñi nag ñoo fi wax parité heure bu nekk nag dañu ci sonal gu dégg bëccëg nag nañu bindee ci kàddu yi ay kilifa ci góor lañu bindee ay kilifa yu jógee ñoom it nag ci lañ bokk kon ma njëkk cee jox kàddu gi sayida Fama toog soxna si kon tafadali mashkura waaw ñoo ngi leen di nuyu yéen mbooloo mi yëpp eh, di rafetlu seen toogaay di rafetlu seen i kàddu di ci kontaan itam nag di ci kontaan wax dëgg yàlla eh, ndax njaboot moom amul lu dul doomam bu ko dugalee mu jàng alxuraan ba mokkal a ah, mu toog na day teere tari ay mbokkam yëpp ñëw teewle ko wax dëgg yàlla amuñ ci lenn lu dul kontaan ci ndax man maa ngi jógee ba Mbuur ah guddee fii itam te bëggoon na mais mënumaa dem ndax lan moor daf ma koo jaral mais damaa xaw a guddee moo tax moor amin ju baax la wax dëgg yàlla bëgg na mbokk laa biir na am na yërmaane ci mbokk mbokk jaral na ko lu ne moor mën naa yore benn bëgg ko mbokkam soxla ko mu gedd ko jox ko mbokkam toog kon kooko bu la soxlaa loo mënti jàpp danga ko bàyyi ñëw kontaan nañ ci moom daal wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a egg yàlla na ko fa yàlla eggale njabootam gi itam yàlla ko ci yàlla jàppale taxawu leen ba fu ñu bëgg egg ñu egg ko ba wàcce wàcce ko di ko yóbbu màkka wax dëgg yàlla daal suñu xol a sedd kontaan nañ trop jërë jërë ngeen jëf yàlla nangu barke alxuraan léegi nag oustaz Baye Ndiaye Cheikh Ibrahim Ndiaye mi ci sama ndeyjoor ñu nag shérif bi tey bi ayge majlisu shura lil jamiyati wal madaris al quraniyati bi Sénégal ki jiite mbootaay gi mi ngi tudd Cheikh Ahmad Boucar Niang yor daara ca unité 7 parcelle oustaz moom mooy président bi ma ne oustaz Baye Ndiaye muy mooy aminul am mooy secretaire général naka la noonu la de secrétaire mbootaay googu xam ne ay daara la boot daara yoo xam ne ñu ngi ci biir dakaar ak ci biir réew mi yëngatuy mbo mbootaay googu ma wax yëpp mooy alxuraan ak lu ko jëmale alxuraan ak lu tax rek ñu améliorer condition yi sëñ daara yi ak yu ne mel ak yu ne mel Sass Baye mooy secrétaire mbootaay bi nga xam ne chérif bi jiite daara ji tey xale yi taree ji ci mbootaay googu la bokk kon bu amee la am bi teewee muy secrétaire bi rafet nañ jox ko kàddu bi mu indi kàddu majlis shura ñu continuer ci liggéey bi incha allah borom alquran la ku xam docteur Diaw Saloum Saloum ñu xamul docteur Diaw yaakaar naa bëriwul docteur Diaw daaram ja ba muy nekk unité ñoom ñi ñoo ko sancoon moo ko rakkam Mouhamad Dem Ndiaye am nañ fa résultat yu baree bari yu sedd xol yoo xam ne xale yi ca génne woon tey jii am na ci ñoo xam ne ay cadre lañ jàng nañ ba ñu ngi liggéey yeneen ñaa ngi ci université yi yeneen ñaa ngi seeneen jàng seeneen jàng pareegul ba fi ma waxee yow nga yor daara ja yu sedd xol Chérif mii danay teewee ay conférence am ak lenn ci mbooloo mi mel noonu nag buñ ñëwee ci jotaay bu mel nii di jotaay alxuraan ñu ne mbootaay ga ëmb daaray alxuraan ne moom mooy secrétaire bi kàddum dana fa rafet loolu yaakaar naa incha allah kon sa tafadal mashkuran amin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alhakim mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp Euh, dañuy wax ne imtisaalul amri laa yadur waaye amoon nañ ngànt si jël kàddu kàddu gi bu mënta ñàkk dafay nekk ñaar rekk mooy ñaan ak sant yàlla ci yàlla may ñi tawfiq ak fekkee umsiya bu mel nii bu rafetee nii euh, fa tabaarakallahu suñu mbokk suñu zamil al muhtaram Cherif bi Biteye nekk kenn si ñun nekk kenn ci tool bi nga xam ne ci lañ ne Euh, képp ku xewle da ko gis sa wet bu xewlee woote waa majlis shura yëpp war a jóg ñu xamoon liggéeyam lool daan fekkee ay conférence am waaye laxasaat yu mujj yi ñu fekkee nag dëgg-dëgg yëg nañ ci ak ndollal yëg nañ ci ak ndollal parce que alquran ji ma dégg xale yi jibal léegi euh, ku ko dégg te nekk ab jàngalekat da nga xam ne ka leen yoroon sonn na ci lool waaye nag am na ca tawfiqit kon Chérif ñu ngi leen dokkeel ci loolu euh, kaddu majlisu shura suñ président moo ko waroon def mooy Ahmed Boucar euh, dafa xëy am cours presque cinq heures la wàcc mënul ñëw mu délégué ñi kii mooy argent mooy naïbu raïs moo waroon jël kaddu moom laa ko bàyyee woon waaw comme dañ koo dénk liggéey bii it looloo tax majlis shura nag lil jamiyat wal madaris al quraniyati bis Sénégal wala fi Sénégal Euh, mbootaay la boo xam ne liggéeyal daara xitmaal alquran ak ñoñam moo ko sos xam naa buñ ko waxee li ma nit di njëkk a laaj mooy yeneen i mbootaay ñi ngi fi yoo xam ne xëy na ñoo gën a siiw walla ñoo jiitu loolu mënul ñàkk ci doxalin boo xam ne buñ teg ci yoon la buñ doon xool réew mi léegi dana gis ne ay parti yu bari mi ngi fi te parti bu nekk xëy na liggéeyal réew mi la wax na moo ko tax a jóg waaye nag mabaadi yi dafay faral di uute muy principe yi nga xam ne si la ñuy doxee euh, ittihaad am na fi yeneen i mbootaay am na fi ñun ñu nekk ñenn si ñu nekkoon ay euh, membre fondateur ci yooya mais dañoo dem ba gis ne am na tuuti benn faarix bu jaar suñu diggante ak ñoom te faarix bi du dara lu dut kenn ku nekk nii nga gis na liggéey bi ne la gënee Euh, kenn ku nekk demal sa bopp ci anam googa bokk na rek ñaari point laay tënk yoo xam ne mën nañu utaleeg ñu bari ci doxalin ba tax ñun ñu tànn suñ yoonu bopp mooy majlisu shura nanguwul politique tënk ko muy benn ñaareel bi majlisu shura nanguwul euh, tariqa tënk ko muy ñaar parce que boo xasee ne daara ji moom ngay liggéeyal boo bàyyee mbootaay gi politique téye ko téyel ko boppam dafay yàqu boo bàyyee tariqa téyel ko boppam dafay yàqu parce que man mën naa nekk ab murit président ñëw nekk ab tijaan keneen ñëw nekk ab laayeen bu boobaa kan nañu jox kàddu daara ji doo duñ ko am kon ñu ne nag kenn ku nekk liibar nga sa bopp jàpp tariqa bu la neex kenn ku nekk liibar nga sa bopp jàpp parti bu la neex waaw bu ñu dajee si daara ji nag ñu xam ne majlis shura moo xew de ñun ñëpp a ca bokk yam muy penc moo xam ne daara ji lay liggéeyal alquran lay liggéeyal euh, ñooñ alquran lay liggéeyal yaakaar naa kenn ku nekk bi muy adhéré wu fekk na ñu wax ko condition yooyu ba mu d'accord ko Chérif nekk si membre bu actif boo xam ne ñun xam nañ liggéeyam ba weer bi passé réunion bi majlis bi def këram lañ ko defee samp ko fa comme responsable boo xam ne HLM Grand Yoff moom moo ko jiite ak euh, suñu mbokk Madiara ak euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàppalanteeg moom tam ak Ibrahim Anne moo nekk noonu bureau bi nga xam ne HLM Grand Yoff la ne moom Chérif mi moo ko jiite kon ñu ngi koy ndokkeel ci lool di ñaan yàlla dëgëral ko euh, gannaaw lool it ñu ngi ndokkeel asatise yi fi teew yëpp suñu mbokk Cheikh Aliou Diagne al muqaddam nga xam ne moom lañ tuddee soppeeb jotaay daara yi wala sottab jotaay alquran yi di ndokkeel suñu mbokk al ustaz euh, Xasan imam Xasan imam Xasan Cissé kàddoom moom it rafet na imam Xasan Seck surtout pédagogie bi nga xam ne moom la lancé léegi ci yëg-yëg ak déggin gi mu am ci daara ma xam ne moom tànkam ci biir daara parce que dama gis na xam na ko lool la fa lépp xam na waa doomu daara la waaye ko dafa am ñu jàngi ci biti ba ñëw nekk ci leneen waaye nag moom xam naa ne tànkam ak loxoom yëpp ci biir daara ñu ngi koy ndokkeel ci dégg googu mu ci am di ndokkeel ñëpp kaddu gi du jar muy gudd amoon nañ gàtt si yëkkati ko waaye ñu ngi ndokkeel Chérif di ndokkeel ñëpp di ñaanal xale yi yal na yàlla saxal alxuraan seen dënn waaye yal na yàlla tofal ci xam-xam di ko dénk bu baax way jur yi euh, alxuraan base la ba boo xam ne buñ ko gardee luñ sa teg àttan na ko waaye nag dañ koy dimbale fi mu toll nii bunt bu ubbeeku la nañ leen dimbale feek alxuraan jaa ngi mokk leneen lu ñuy sàkku dafay yomb ñun xam nañ xale yu bari yoo xam ne bi ñu mokkalee alxuraan dem école daanaka ay ay waaw jàmbaar lañ la ñuy doon laa bëgg a wax sa la ñuy jàng waaw fekk fi alxuraan jàng fa ay jàmbaar lañuy nekk sa la jàng ràññeeku ca lool ba bi ñuy def doctorat te loolu ku dimbale xale yi mën naa nekk te du leen yàqal seen njàngum diine parce que bunt bi xas na ubbeeku taxawaay rek la laaj yal na yàlla dimbali si way jur yi te dimbale leen si waaye dimbale si sëriñ bi nga xam ne eh, yëf si moom la gongee ko ñu ngi jéggalu si kàddu gi xaw naa gudd salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngeen teew waaye tey bisu alxames la li gën a bari dañ koy jàngale dimanche ak àjjuma lañ gën a miin a ñàkk a jàngale moo tax ñu ne rek lu mu mën a mel rek ñun nañ jéem a teew si rek ñun jàppale Chérif ndax ku am kóllëre la ci teewe gi taay yu ne li nga wax tamit nag ci xale yi am nañ fondement bu dëgër waaye jur ñoo ci des nag kon fi mu ne gën a cee teg nag tabax bu gudd gudd boo xam ne àttan na lu ne àttan na ko moom fondement boobu noonu maa ngi fàttaliku rek ci début année 2000 yi am na benn alim pakistan yi bu na àddina Mawla Shah tur bala ki tegu xamatu ko ala kulli xaal am solo rek mooy ba may gis journal ba ko doon tàggee mooy rabatul alim islami bii nii di génne ci maktab rabita bi nekk fii nii nee na fukki lang ak ñaar góor gi maîtriser woon na ko lang ak ñaar da ko xam Pakistan moom it nga xam ne réewam daara la alxuraan lu fa tasaaroo la kaar kaar ñu mën koo jàngal lool te yàgg ca alxuraan moo ko mayoon barke boobu noonu fukki lang ak ñaar yoo xam ne maîtriser woon na ko te borom xam-xam mag la woon dama ko demoon ci archive bi du ñàkk sax da nga mën a génne waat turam te wax la rek li oustaz wax lay dëggal ne fondement la boo xam ne nii boo xasee boo ko xasee fonde ba mu pare lu la neex tegal ci kaw fekk alxuraan jaa ngi gën a rafet rek lu ñëw day day gën a sax rek yàlla yàlla jàpp leen ci barke alxuraan léegi nag damay présenté suñu muqaddam bi di almuqaddam almuhtaram muy Cheikh Alioune Diagne mi ànd ak mbokkam Cheikh Abdoul Karim ñaŋ di naayibam di léppam foo ko seen seen ko ci peggam yàlla yàlla ak yàggal seen ànd bi daf ko ngir yàlla rek dem ba seen doom ak seen si di ko àndee Cheikh Alioune Diagne ku ko wax ak Cheikh Imam Hassan Cissé ridwanullahi alayhi imam moo ko muqaddamal waxoon ci moom ay wax yu rëy yoo xam Cheikh Abdou Karim mi yàgg naa dégg ma koy nettali nawoon ko lool bañ koy wooyee caatam imam Hassan Cissé ndax wax gi ñu wax ne moom la imam mujjee muqaddamal yaakaar naa kuy fekkee jotaay mais ca parcelle imam Cheikh ci boppam mooy déplacé ñëwal boppam ba am na ab yoon mu am ngànt waaye mu jigi mu ñëw mu ne xaw ma nu may def Alioune jaañ kon ko xadara Cheikh Ibrahim bi xam la dëgg dëgg dëgg dëgg muy taaral jotaay yu mel nii nag yor xadaram ca parcelle waaye nag yor nag ab sànceem boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla ku nekk ñaanal ko ci làmmeñu alquran yàlla yeggal xadara boobu noonu sànc ba yëpp yàlla na mat mu sànc ko woon yàgg fa dundal liggéeyal fa Cheikh Ibrahim ma ne péeb Ibrahim miin na ko waaye jotaay yii nii itam miin moo ko may laqabu habibu majalisi zikri maanaam soppeeb jotaay yi ñuy tuddee yàlla moo koy firee ne bépp jotaay boo xam ne boo ci nekkee njortu ne yàlla gërëm na jotaay ba rek moom moo tànn nekk soppe jotaay booba ba pare nekk mbindaanam tamit liggéeykatam habibu majalisi zikri mu xadimuha yàlla yàlla nangul ko laqab boobu noonu Cheikh Alioune Diagne moom nag lay jox kàddu gi moom it ni ma ko waxee ku nekk jéem ngaa jàpp ci xew-xew bi pour mu jag moom it daf cee bëgg a jàpp moom mu jekk ci anam gi nga xam ne moom la ko yàlla féetalee ñu koy ñaan yàlla defal ko tawfeex taysir kon fadilatu cheikh tafadal mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di siyaara di leen ndokkeel ci jataay bi nga xam ne yàlla xewalal nañu ko jataay la boo xam ne ku defal wërsëg rek yaa ko mën a teere muy jataay lan di jataay alquran ngi ndokkeel suñ soppe suñ xarit sarif bi tey saa su ngi lay ndokkeel bu baax bii du mooy sa premier jataay waaye ñu ngi ndokkeel mboolem ustaas yi nga xam ne ñu ngi teew ci jataay bi alaaji ibrahima aan bi ñu la tuddee laa lay doog a xàmme léegi laa ne laab yi tax na kenn xameetu kenn ñu ngi lay ndokkeel yow itam ndokkeel suñu sëriñ imaam Assane di ndokkeel mboolem ñi rek jataay bi nag jataay yu nuñ waxee promo la promotion la mooy jataay yi ku fi ku ci deew ci jataay da ngay fexe am ci dara dama wax ne képp ku dem ca tool yi da nga yóbbaale sa moos yi mbaa sa jaaxaay mbaa sa yi léer moo tax kuy dem xare it war ngaa yóbbaale sa ngànnaay jataay yiw yi war na képp koo xam ne yaa ngi am jafe-jafe bu mën a doon waroo dem ca jataay ba ñëwi jafe-jafe boobu te tàggu la ak moom mu war ta mën a nekk moo tax toujours man damay wax ne jataay yi nii képp ku yàlla dimbale nga di ko fekkee soo amee sens tuuti soo ñëwee sa problème war naa jeex waaye nag war ngaa xam li la tax a jóg lan la jataay la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii dama dégg léegi mu ne mu ne daaye góor gii nga xam ne moom la doomam mi mokkal naka la tudd Mahamad Nasir ak Mahamad Hadi mi yàgg naay am lenn rek laa lay wax Baye dafa wax ne isa kunta tasfoli wa janbuka salimun faqad tafi at ma awqadoo kullu muharaba so fekkee ne man ak luñ ma mën a wax dafa wax ne yelloo moo na ni jaalan wa ay xanto am na man tujjirax min misaari ma soxtoo sa ba ala annani raadin bi anna qiila jaahilun safihun wa in qaalu fattaban lahu tabaa mu ne bu fekkee ne ñu ngi may yedd man lu nekk ñu may waxi te man li ma nekk yàlla gërëm na ko bu fekkee ne man ñu ngi may doyee di loolu lu nekk ñu ne ma ko te yonent bi nga xam ne moom la àndal nangu na man fekk ma ci sama wet luñ mën a wax rek nangu gi ma yonent bi nangul rek man fay na lépp luñ taxal lu bon lépp lu ñen rek loolu fay na ko waaye alquran jihid noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba pare di ko jàngale ma amul benn grade boo xam ne moo gën a koowe grade boobu amul bon ku yonent bi takkal grade bàyyil xel ne fi mu jaaroon dang nga fi jaar wala boobu da nga ca mosu boobu kon xale yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla barkeel seen alxuraan yi yàlla na ca xam-xam tey maa ngi guddal waaye leen rek ci lay ñëw mooy képp koo xam ne bëgg nga xaajo ju rek ñëwal xaajo ju faju nag laaw ku ko bëggul aajo ju faju laa ku ko bëgg a ñëwal ku ko bëgg toogal ngeen xaar nag dafa am nu may ñëwee ma noonu de sëñ bi caam wa caam da nga may taxaw ba xam nu may ñëwee man du ma ñëwee noonu nga baal ma rek man du ma ñëwee noonu teel ma ni man du ma ñëwee noonu de caam yow yaa ma gën xam xam nga ne man du ma ñëwee noonu ah ma xool boobu waaw kay lii laa doon wut andi waaw lii duggaat ci bi parce que dafa manqué ñaari junne moom laa de laaj ku bëgg doom ju mokkal alquran ñëwal ku bëgg mucc ci problème mu jamono yi ñëwal képp koo xam ne yaa ngi am lu la jaaxal ñëwal tey jarul dem fenn ci benn bu xaaba di ko jox trois cent mille wala 500000 ngir sa fa aajo faju te képp ko joxe sa tur nag joxe ko fii kuñ fi tudd duñ la tudd Baye sa Sakho waa alli Diagne mooy premier nag Baye sa Sakho yaay ñaar yaay deux Baye Cissé Sakho yal na alxuraan teral la yal na alxuraan teral la kan la Thierno Yahya Sall yaay troisième position yal na alxuraan teral la ci barke Yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ñëw kan la Serif Serif waagaan yaay quatrième position yal na alxuraan teral la na ñëw kan la asu jiiju yaa njëkk ñëw ci jigéen ñi yal na yàlla teral la ni nga jiitoo yal na nga ko jiitoo ba faw ci barke alxuraan na ñëw mu gaaw na ñëw mu gaaw damay bañ mu naaw de na ñëw laaj ñiñ yaakaar ñëpp alquran lañ yaakaar maam Cheikh Ahmad Bamba daraan jël ay téere lal bam rafet mu jël alquran teg ci koom jël parfum tour ci tiir ko te naan ko yaa kitaaban karim anta habibi wa xalili wa qabla kunta tabibi dem na ba naan kitaabun karimun min karimin mukramin li habdin karimin a sarqa wal xarba li mu xam yëpp mu ngi ko amee ci alquran beneen bi ci des mooy Mawlana Sislam Alaaji Ibrahima bi ñëpp ñaan karaama leen rek la ñaan fal tajal na hif sa kitaabika kari kitaabika karimi karaamati ila liqaika alasim yow yàlla yàlla nga jël alquran maanaam def ko muy sama sama suma suma suma karaama man ba keroog ñuy dajeeg yow kon alquran lu mënta faj amut kon ku bëgg sa aajo ji fajo andil ma ñaari junne ñaari junne laa wax nag dafa mel ni ñeenti nit a ñëwagum de wala amu leen aajo amu leen aajo ñaari junni yi daa bëri alxuraan ëpp loolu tekki leen oor yi na jigéen ñi tekki oor yi andi na junne moom nañoo mu gaaw jërëjëf Baye Cissé yal na alxuraan teral la Baye Cissé toog foo jublu yal na yàlla dimbali la yàlla bul gis ci sa dund gi lu la naqadi ci saar ak ci baatin kan la moor ndaw yal yàlla dimbali la ma ndaw ko ndey ma jàngal alxuraan Mor ndaw yal na yàlla dimbale la yal na alquran teral la ci li feeñ ak ci li nëbbu yàlla bul gis mukk la kan la alxaaji saaxo borom waxtaan wu neex wi alxaaji saaxo yal na yàlla yal na alquran yëkkati la yàlla barke sa njaboot lépp loo jublu rek yal na yiiw yàlla bu la dara lor yaara bi ci barke alquran kan la Cheikh Ahmad Tidiane joxe na junne Cheikh Ahmad Tidiane yal na alquran yëkkati la lépp looy ragal yàlla bul ko gis ci barke alquran yal na la alquran tëral ci zahir tëral la ci baatin kan la jibi toob jibi toob yal na alquran yëkkati la yàlla bul gis dara lu la lu la jaaxal ya rabbi yal na alquran nekk sa ndimbal ci zahir nekk sa ndimbal ci baatin ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa na ñëw may la wér alquran tëral la ci zahir ak ci baatin xam-xam bi yàlla yokk ko te dëgëral ko te nga gudd fan ci barke yonent yàlla Muhammad بائرات داء بها سماء خالق منه أن كان مالك الخلق ترا غافرا العزيز نواء منه أن قال تأنفق بلادا من أن قال رب هذا العطاء ناصر سيقي أمين كل يوم جمعة أمين خيري سواء wala fu laa bëgg ñëpp jëriñu kan la ah taxawal soxna si taxawal yaa yaay xale yi xale yi yal na yàlla def ci ñoom barke ñoom tiranga te lépp yal na la fi fekke ak way juróom wu góor yal nañ la defal tiranga ba nga xam ne alquran rek mooy moo xam tiranga ci barke yonent moo jërëjëf ay wana ñoom mu gaaw yal na yàlla jox la mbootam mokkal nga xam ne yàlla lay programme rek kollaar rek mu mokkal yal na yàlla defal la loolu te bul am mukk benn jafe-jafe ci njàngale ci barke yonent yàlla Muhammad alquran man na lépp kan la sama yaay faama soxna faama toob yal na alquran teral la njaboot gi yàlla barkeel ko fan wu gudd waan ak wér waaw lépp looy jàmbar ci jëmmu ji ak ci jëmmu yi yal na yàlla wéral ko tereel la ci barke yonent yàlla Muhammad lépp loo ragal yal na la ko yàlla dàqal yàlla bul gis mukk loo ragal ya ma ñaan ñaan koo jàngal yal na xam yal na mokkal yal na barke waaye yal na fas kóllëre ya rabbi ci barke yonent kan la Baye Ndiaye ma mokal yàlla bul am benn jafe-jafe ci njàngale yàlla na yàlla dafa la xëbbool ci saahir ak ci baatin ci yàlla na yàlla jox la siru mokkal kan la sëriñ bi joxe na ñi lay teral di la teral di teral ba nga xam ne alxuraan rek a mën a terale ci barke alxuraan kan la Mohamed Toob Mohamed Toob yàlla na alxuraan teral la ci saahir ak ci baatin barkel say mbir ci li feeñ ak ci li nëbbu kan la moo toob mooy bàyyi xale yam moo toob taxawal moo yonent bi salaa sallam dafa wax mu ne inna lillaahi ibadan laysu bi anbiya wala sohada walakinum yaxbitu anbiya wa sohada li makanati min allah asa wa jalla li shiddati lqurbi fa saala saalin ya rasulallah manhum munhum qawmun sata yajtamiuna li sikri la wa yatahababuna wa yatasawiruna wa yatabasaluna fillah mun a am na ñoo xam ne doo ñu ay yonent te bokku ñoon ci ñi sahit te bu ëllëgee yonent yi danañ leen ñee ñi sahitoon danañ leen ñee ñu ne ko yooyu ñoo yonent bi ñoo ñan la ay nit la yoo xam ne fasanti ko la dañoo dajee ngir bëggante di siyaarehante waaye dajee ngir tudd yàlla waaye di dimbalante wan jotaay bi yaa ñoo ko may dama xam ne fekkee ne bokk ci jotaay bon jotaay boobu amul yal na yàlla guddal sa fan may la wér ci saayir ak ci baatin xeex nga ba yàlla dimbale la ndimbalal yàlla la innal fadla bi yadillah yàlla may la ko yal na la yàlla dolli lii nga def sant yàlla la ku sant yàlla dolli la yal na yàlla dolli la ba nga yëg na yàlla dolli la li ma wax léegi rek loolu laay wax bàyyi li mu wax isa kunta tasfu lii wa janbuka saalihun faqad tafe an ma aqaddo kullum haraba ak luñ mën a xam rek yow fexeel xam yonent bi rek te ko am alquran am nga yonent bi aywa na ñëw jërëjëf ñaari téeméer nanga dem ba am sa télévision bopp ci barke alxuraan ku dégg ni ngay joxe question yi xam na ne yow doomu daara nga yal na yàlla dimbale la ci saayir ak ci baatin yàlla barkeel say mbir ci saayir ak ci baatin loo laal yàlla na barke ku la laal yal na barke ku la jublu yàlla na barke loo xool yàlla na barke ku la xool yàlla na barke mbóot moom yàlla na yàlla ko yàlla defal aywa na ñëw ji ku jiw doo góob nu mu sa am am yàlla yokk ko te barkeel ko may la wér ak wér la ci barke alxuraan na ñëw kan la Omar Toob yal na yàlla barkeel say mbir ci saayir ak ci baatin yal na alxuraan teral la milliards yi taw yal na la ko yàlla defal kan la dimbale ci saayir dimbale la ci saayir dimbale la ci baatin musal la ci saayir musal la ci baatin yokk la ci saayir yokku la ci baatin ci barke alxuraan te may la fan wu gudd nag dégg kan la aram jaw aram jaw yal na yàlla dimbale la yàlla def la mag barkeel sa njaboot bu dee xamagu la borom kër yàlla na yàlla may la borom kër gu baax taana na ma man de benn place sama dese nangu na ñeenti rakk de laa dese fi ne am naa ñetti de ah ayoon na ñëw ah sërif bi taan ah. noonu ah. dimbale la may la fan wu gudd wu ànd ak wér may la mucci gu ànd muccile may la barke bu ànd barkele ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla na alquran nekk sa ndimbal ci saahir ak ci baatin acc na ñëw ko amoon ñeent téeméer andi ñaari téeméer man a imaam Assane yàlla na yàlla yokkula ci ndey joo mooñ ci koow ci suuf ci bëjiix ci bëjiir yi yàlla na la yàlla dimbale foo xaw rek yàlla na nga xam nag dimbalal yàlla yàlla na yàlla leemal la xam-xam ni ko leemalee Seexu Tijaan nga xam ne wa taraakibil ismu kayfa yasaa'u yàlla na la ko yàlla defalee ci barke yonent yàlla Muhammad acc na ñëw mu gaaw ñaari nañ ko sob juróomi junne la des nañ ko sob ah xam nañ ne yow xol bi ngay joxe ay milliards la xam nañ la ba wér yàlla may la fan wu gudd gu ànd ak wér may la mucc gu ànd ak mucc le yàlla na yàlla barkel say mbir gis naa la koo rëddal yàlla nangu ci barke yéen ci yàlla moo ma sees andi ma sees bi tegal ma nii rek yàlla jox leen ay daaraay daaraay daara te ñëpp xam seen i daara ci barke alquran ayoo na ñëw waxtaan wu neex bi Babacar Gueye yàlla na alquran teral la yàlla na alquran teral la yàlla na alquran nekk sa ndimbal ci saayir ati baatin lépp lu doon sa jaaxle ba mu tere lay nelaw ci barke alquran loolu yàlla na ko yàlla dindi bu dee feebar la yàlla na ko yàlla jeexal bu dee bor la yàlla na ko yàlla fay yàlla jox la wërsëg woo xam ne nag dangay dimbalee ci ndeyjoor di dimbalee ci càmmoñ di dimbalee ci suuf di dimbalee ci kaw ci barke yonent yàlla Muhammad acca gis nga ngëm-ngëm rek moo mën a dimbale nit ki nettali naa ko du bi ñaari yoon ñaata nit lay nem ci jataay ñëwaat man ma wallaahi kero bi ma demee ci jataay wala ma amoon kero ba ma la ko joxee ba ma àggale sama xaaju yëpp faju te damay wax ne ki lay laaj te heure laaj xëppale woo ko loo ko joxe xam nga ne kooku naxul la parce que yokkute lañ ci gis ki lay laaj te kii laaj yow du la nangu du nangu nga joxe loo ci nangu nga ëppale ko da ngay xool ndax kooku lim moom wala li mooy laaj ci moom la jëm wala lan nañ xool buñ nax suñ bopp alquran mooy lépp suñ ko gëmee rek alhamdulilah dañ ci jëriñu suñ ko gëmoon nag yal nañ ci yàlla musal ci woote luñ gëmul yal na yàlla barkeel ñëpp yàlla fajaaje yëpp képp ko xam ne amoo amul amul a loo joxe sax moo la tey joxe yal na yàlla jox la loo xam ne boo liggéey bu ñëwee nga joxe ci barkeen teel Muhammad ku jàngoro yal na ko yàlla faj ku fi andi haajo yal na ko yàlla faj ku fi andi jaaxle yal na ko yàlla teggi ku fi yàlla musal ñi ci accident wu saahir musal ñi ci accident wu baatin man nag toujours damay dégg yàlla musal ñi ci mbas mi lii du mbas ngeen baal ma xam nga lan mooy mbas mi liñ ko làmbee mooy mbas mi waaye mbas moom yàlla nañ ci yàlla musal waaye mbas nag mooy créer créer loolu mooy mbas ngeen baal ma la min télévision la la jàkkalool te man ñi moom ak borom takk der yi waaye daal ñu ngi jéggal ñëpp di ñu jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu moom daal koo ko ko ñaanal la bëgg bëgg ko ko ko jox benn dërëm bëgg ko li mu bëgg mooy alxuraan ji ñu fi dajale yàlla sotti ko ci njabootam moom sañ bi say njaboot góor ak jigéen ñëpp yàlla yàlla may leen alquran yàlla ñu bokk ci ahlul quran nga xam ne ahlul quran yi wa xaasatu ñaan ak Cheikh Ibrahima bëgg yaa nga yàlla nga njaboot yëpp bokk ci biir ñu lab ca biir ñu naq leen ca biir yàlla teg ci xam-xam buy jëriñ bëgg-bëgg yi yëpp yàlla xam na ko ala yàlla taxqiqal ko ala ahsani ma yuraam ci barke alquran barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlana Cheikh Ibrahima waaye barke sa sëriñ bi nga xam ne moo la jokk ci Mawlana Cheikh Ibrahima nag sa buntu Cheikh Imam Hassan si ridwanullahi alayhi Ousmane Ndiaye mu ne naayib la seen jumaa ja ci asalam Grand Yoff mu ne kilifa la ca xadara bu kanen bu Kaolack ba ci kilifa yi la moom Serigne Ousmane Ndiaye macha allah imaam la jumaa ji asalam Grand Yoff tamit campénal campénal waaw kay kon moom ñu ngi koy ne baax a baax moo doon laaj laaj ci gannaaw de di liggéey ak télé bi di télé bi du mu tudd sax seen clic seen clic seen clic TV yàlla yàlla barkeel chaîne bi dem bañ xam ko fu nekk nag moom it ci àdduna nag fépp bu télévision bu barke daal bu mu ci bu mu mën a doon rek yàlla ci bokk yàlla yaatal ay bànqaasam liggéey bi ngeen liggéeyal diine yàlla yàlla gërëm ko yàlla ko yàlla yootal na ko yàlla yaatal laa bëgg a wax ci barke alxuraan. gannaaw bi nga xamee ni dégg nañ kàddu yi ñu fi dégg ci képp koo xam ne yaa ngi suivre émission yoo xam ne day jàll ci seen Senclic ñun ñu nekk kenn ci ñoo xam ne dañ ciy liggéey waaye ñun boole bi nga xam ne moo ñu yitteel mooy wàllu daara ji am na sax yeneen émission yu ñu ciy def waaye li ci ëpp solo ñu tuddee ko daara ji liñ ci jublu mooy dañu seet ne daara mbokk mi wax na ko léegi te wax naa ko bés ca jumaa ja ne naa daara formation la woon boo xam ni mag ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñëpp dañu former former ñeneen te nee naa booy xool situation économique u Sénégal ci li nga xam ne mooy indi économie ci réew ñi ko yor ay doomu daara la ndax daara non seulement dañ la jàngal yar la ba pare jox la métier métier bi ci gën a noobul ñaar lañ mooy mbay ak sàmm gannaaw alquran te yooyu moom la mag ñi doon def jàngale nañ bay nañ ay tool bu amee nag ñoo xam ne am na leneen lu leen tax a jóg ci daara ñenn ñi di saboté daara ndax saboté daara mooy nga ñëw fekk goo xam ne daara taxu ko jóg nga jël kenn ci ñooña bugg ko askanale daara loolu lañ doon nangu te nag am na fi am na fi ndax gis nañ ñoo xam ne dañu jël ay xale ne ay taalibe lañ dañuy yelwaan te ñun def nañ ci enquête boo xam ni ñi nga xam ne ñoo doon wax loolu am na ñoo xam ne ay xale lañ loo xam ne dañ leen a luye waaw ndax dama dem Ourossogui ci otel bi ñu daloon ma génn di doxantu ñëw ba ci station bi ma gis ñaari xale wala ñett ñuy yelwaan ma interpellé kenn ci ñuy yelwaan laaj ko ban daara ngay jànge déggul sax wolof pulaar laay wax ma laaj ko ci pulaar ne ban daara nga nekk xale bi ne ma nekkuma ci daara ma laaj ko fi ma jo wax foo jógee mu ne mam mu ngi jógee sax ci dëkk yi nga xam ne ñoo woor senegal kooku nag boo dajee moom ne taalibe la kon yaa ngi xas daara beneen bi ci des mooy ñi nga xam ni li daara laaj amuñu mustawaa bi bëgg xaalis moo leen ci dugal ñoom it mu am beneen côté boo xam ne dañ fay jaar surtout boobaay tamit ñu ku ci ay wax yaa ngi toon daara kon bu ko defee ñun li nga xam ne moom lañ bëgg incha allahu eh, occasion la ci ñun ñu xamanteeg yéen ndax bëgg nañ bi mooy suñ première jotaay bëgg nañ fut boo xam ne daaraa nga fa bu dawuloon mbas mi sax bu yàgg lañ ko programmé woon mooy dem ci daara bu nekk laaj leen daara bi nan lay tëddee lan lañ fay jàngale ci ban riwaayaat beneen bi ci des mooy yan muskila yaay am ak itamit lan mooy li nga xam ne moom lañ bëgg ko leen ci jàppale loolu dina ci moon a dem ci daar yu baree bëri incha allah bu ko defee ngeen ñaanal chaîne bi eh, ki nga xam ne moo nekk ci bopp chaîne bi muy Souleymane Ba ak ñoom eh, Kéba Sané ñooy caméraman yi lépp loo xam ne daal moom lañ ci mën te itamit fépp koo xam ni diine ñu ngi ko fa bëgg a lottal bu jógee danañ ci wax moo tax defoon nañ reportage ci Macron bi mu defee waxam jooju dem nañ ci imam Serigne Moustapha bi tey mooy woy juru ki nga xam ne mooy oustaz bi doon jàngal xale yi laaj ko moom lan mooy ci xalaatam mu wax lam ca wax ak la ca maam Ibrahim ñas waxoon ca bu yàgg kon bu ko defee loolu mooy sunu liggéey ci biir seen bi e, boroom xam-xam yi fi nekk muy borom alxuraan yi dañuy ñaan yàlla sëriñ bi ngeen defal ñu ñaanu xaas sëriñ ngeen defal ñu ñaanu xaas ngeen defal ñu ñaanu xaas ci bi fadlil quran li ko dalee ci fatiha ba minal jinnati wa naas lépp luñ ci yéene ci défendre daara yàlla defal ñu ci ndam ndax incha allah daara yi ñu xam yépp bu ñu jógee danañ jël seen kontak jéem a ñëw ba ci daara ja laaj ndongo yi ñu jàng ñu dégg ñu xam ne lii mooy daara waaye bokk li ñuy gis ci mbedd mi yooyu moo doon kàddu yi ñuy tàggoo ngeen baal ñu àq bu ko defee rek ñu delloo leen kaddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah TV moom xanaatun la boo xam ne mudaafiatun anil islami wal qurani wax ahlil quran yal na yàlla boole ko ci xanawaat fadaaya yi nga xam abral alam ne foo ñu waxeetee diine rek ba ñu waxaan iqra ñu xam xanaatu xanawaat yooyu am na iqra am na al majd am na al kawsar ak yeneen xanawaat yu ne mel noonu ci àddina ñoo xam ne ci réew arab yi ak yeneen réew nga xam ne seen liggéey guddi ba bëccëg lépp mooy défendre l'islam ak diine l'islam ak alquran yàlla na ci seen bii bokk yàlla yàlla barkeel ko yàlla na ko réew mi yëpp xam ba jéggi frontière réew mi barkeel alquran waaye incha allah ni ko waxee noona ak jëflante yéen bu baax a baax a baax ci seen li ngeen tànn te mooy défendre daara ñu jàppale leen ci ubbil leen suñuy buntu ba heure boo xam ne am nañ xew-xew yu ne mel ngeen ko yëg incha allah nag seen xel dal ci wàllu googu moom léegi am na mbokk mu baax maa xam ni sénégalais la di suñu mbokk waaye nag ma ngay ma nga ca Italie dafa dégg tari mu bég ci mu ne ñaari kaa ngi ku nekk may na ko ab 5000 francs tabarrukan bil quran muy si Cheikh Omar Diop yàlla yàlla barkeel lim def ci alxuraan la soppil ko ko mu nekk ay malaayin ci euro yow mën a borom bi yàlla yàlla defal ko ko sàmm ko te ko ak mbokki Sénégal ya fa nekk yëpp nag diaspora bi ak mbokk ressortissants africains yëpp dem fa di wuti teraanga ju dagan yàlla yàlla sàmm leen te may leen fa wërsëg ñu siwaat ak jàmm ànd ak mango bu bari fekk ñun ci jàmm. imaam a na. mu ne imaam Mouhamed Top kilifa teew na ci jotaay boobu ñu ngi koy nuyu di ko wàccee wàccuwaayam. léegi dañ ne nag Mouhamadul Haadi toog na barkeelu jàngal ñu suratu Shamsi su paree ñu door a dem ci xatmul Quraan kon nañ jox rajo. shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wash-shamsi wa duhaahaa wal qamari idaa talaahaa والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم doon waaw kay yàlla nga niru sa tooma ci maqaama ak xam-xama sut ko fan nag lool te yàgg koo ñaanal yàlla yokk yokk ko magfira rahma ak sa mbokk Mouhamad Nazir ak kañ ko tuddee Mouhamad Nazir Cheikh Ibrahim moom mi nga xam ne ku ko waxaat moom it xel dana ci xel dem ci alxuraan rawatina ci naxamaat yi xew tey xale yëpp di toppandoor jàngkat yu siiw yi dana njëkk koo def ci réew mii xam ko ci rajo ak xam naa ne yombul nem nekkul ku ku ci jiitu ah, ku dégg alxuraan ju rafet ji xam ne ni ma ko waxee woon rek laay waxaat kii ko jàngal sonn na ci moom yaakaar naa Mahmoud Khalil al Xusari yi nga xam ne ni moom lañ ne mooy njiitu jàngkat yi bi nga xamee ne àdduna mi ngi modernisé wu rajo am ak télé am ak yu mel noonu kii ñu ne moo dàq jàng ci jàngkat yi nga xam ne gisaguñ ko ko raw ba léegi mooy Mahmoudul Khalil Xusari yi ndax bu dee am na kenn ku koy dooranteeg mbagg xanaa Cheikh Abdoul Basir Abdou Samad la radiallahu anhuma ñu ne dafa mës a ñëw fii Sénégal ñëw na fii ñëw na Fass Touré Malick Sow bi nekkoon institut islamique bu may lettre loola comme fas Touré ñoom it karkar yàlla yàggal na leen may alquran ju rafet ñuy njàng rawatina ci nax ma xusariya boobu noonu ñu ne góor gi bi mu déggee xale yi di jàng dafay jooy jooy yi metti ngir niñ ko niroo kàddoom gi kàddoom gi génne Misra gam dëkk bu wareelu ci àdduna bi tasaaroo fa ba ñëw Sénégal xale yi di ko jàng ci anam gii nga xam daanaka xawu leen a mën a xàmmeek moom taxoon na mu jooy co jooy yi méttee métti te xosari nag moom kan mooy xosari nag moom moo la wax ne borom xam-xam la moo la wax ne na borom alquran la moo la wax ne la ñaataa tuub ci loxoom doon na rek nga ne ker ba mu demee Pakistan ndax doon def tournée ci àdduna bi moom Cheikh Abdoul Basit yëpp ba loo mës a dégg mu am keroog ba mu fa demee mooy lan oto bi lañ yenu xam nga oto buñ ñu yenu mosoo koo gis de oto bu yenu foofu la amee keroog bi xusari wàccee Pakistan gis na kon kooku alquran teral na ko yàlla na ba mu dañ ko teral ba fam fa mu nekk ca bar sax ak képp koo xam ne aw na yoonam ci barke alquran kon Chérif liggéey bi rafet na yàlla yàlla barkeel ko léegi nag ñu ngi ci li mujj ci jotaay bi te xale yi jàngal ñu ixlaas ak xatmu bi dama waxee woon ne borom xam-xam yi ñu ne bu ñuy mottali alxuraan ab lim juróom benn téeméeri malaaka wala lu ko ëpp lañ fa teew ñu ne di aminu te ñaar ak malaaka duñ ko delloo suñuy soxla nag bari na lool suñuy aajo bari na lool suñuy jàngoro bari na lool yàlla fajal ñu li ñuy bëgg mu fajal ñu lépp li ñuy xëcculu yàlla yàlla xëccal ñu ko li ñuy dàqalu lépp yàlla yàlla dàqal ñu ko dàqalee ñu ko ci barke al alquran nettali woon naa jotaay bu ni mel matagul weer oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ci laa ko déggee woon yaakaar naa gis naa ko ci Kashiful Albas sama jumal wax jooja ne abdullah naka la abbas ibnu abdul muttalib wa doom ji laay wax de abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma am na góor gu nekkoon madinatul munawara daan wàccee kaamil lu bari mu ne ibnu abbas daan def am kum dénk ne ko heure boo xamee ne góor gi mi ngi ci mottali kaamil bi rek yëgal ma ko man nag sama waa kër dem fekkee mottali gi loola nag ku xam wax ji maanaam ku xam ibnu abbas yaay xam réy gi wax ji ku xam garaat bi ko yàlla may ci diina lislaam bañ tuddee ko xibrul umma yàlla xamal ko taawilu alquran te yonente moo ko ñaanaloon loola mu bokk muy rakk yonente sallallahu alayhi wasallam ndax abbas ko jur abbas yonente ya bàyyi yonente ya bokk benn bàyyi garaat bu ne ibnu abbas am na ko diidal l'islam bii da ngay ittewoo kuy mottali alquran mu ñëw fekkee jotaay booba ndax xam na la fay wàcc ci ay mayeg teraanga yàlla rek moo ko xam daawal bëgg ak ñàkk teew jotaay booba ana ñun nag ci ibnu abbas kon ñun yàlla rek moo xam ñun ak ibnu abbas kon bu ñu fekkee jotaay bu mel nii kon ñun yàlla ñu bëgg lool yàlla ñu ko nangul lépp lu xale yi di ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko lépp luy suñu soxla yàlla nañ ci jot lépp lu ñu ragal yàlla yàlla dàqal ñu ko ci barke xat mi bii ñuy xat mi kon nag ñi ngi jox xale yi micro bi te mooy Mouhamad Nazir Top ak Mouhamadul Hadi Top di doo ñaari doom yi suñu mbokk Mouhamad Top ak Sayida Ami Xot kon xale yi kon te tafadala mashkura yi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 allahu akbar laa ilaaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad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 ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا بما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا إلى الجنة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 ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها في سميك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته حلاوته آناء الليل وأطراف النهار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 يرى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا أنتنا ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه النعيم اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يخفر اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت أعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصنا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما همنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب بذات وإيماني ولتهدنا لعمل الإحسان وانظر إلينا أتي حقوقنا وأجلينا تكون لله بلا مشاركة وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاءت عنا كل من قد أحسن إلي من ربي الجزاء الأحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير وراء من قد حبي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالقلنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالقلنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالقلنا وعمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان اللهم صل على محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا سحق بالأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى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 ada alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu mag teg commentaire kay moom jël commentaire yal na la jigéen jàmm yal nañu yàlla seen rakk bi yëpp yal nañu mokkam amiin may ma ma ma am ñaari kàddu ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi waa Senclic eh, mu mel ni ci lii nga xam ne moom lañ doon def mooy xale yi nga xam ne ñoo doon jàng alquran fa tabarakallahu yow nga nekk seen way jur bi nga leen yóbbee ca daara ja ñu nekk fa ba yàlla attee tey ñu doon tari ba lan ban yëg-yëg nga am bi xale yi toogee sa kanam di tari nga di leen di déglu ci koo xam ne doomu daara la alhamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah imaam ñu ngi lay fay nuyoo di la ndokkile si bés bi di ñaanal yàlla sa équipe ñaanal yàlla télé bi yal na yàlla barkeel ko laaj ngi ñu laaj boo xam ne laaj bu am solo la buñ sa war a tontu la euh, xale yi nga xam ne am tànk doomu daar naa dugal leen ci daar ñuy jàng ba tey ñuy tëri amul lu may yëg leen lu du mbégte xam naa buñ ko toppee wax gi dana daal mënuma wax ma daal xol dafa mais am na am nañ mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax euh, ferte la si faire la ñun ndax la fois passé tabaski bi passé ba ñëwee kaamil yi may defal san papa chaque année te daan ko def muy journée bu mag at yi yàlla dogal mënuma ko def ñu jàng kaamil yi fii kerek moom aari mi ak Mohamed Nasir ak doomi kii ñoo fi dajee fi lañ jullee boobu kii mu ngi bind yaasin doomam mu ngi bind yaas jëm suuf ba ñu xëyee kii dafa jël yaas jëm suuf ñoom jëlee ah, bàqara jëm si yaasin ñu jàng ku njàng mu rafet bañ paree ba jàng xatum bi ba ñu man dama toog si ba jooy kenn yëgut mais jooy jooy sant yàlla la waaw xam na lii lu ma yàggoon a bëggal su ma daan jàngul paa bi kaamil dama daan sonn suñu ko jàng su ma demee ba sama def jàngu ko dama dara lu sant si yàlla bu baax imam waaw kon na bokk yi loolu ngeen dégg ki nga xam ne moo doon wax mooy waajur ci xale yi doon tari alquran léegi kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ñaanal xale yi yal na yàlla la leen bu ñu mënoon am keneen koo xam ne kii mu taxaw ngeen gis nii mooy seen waajur bu jigéen gannaaw bi ñu waxee ak waajuram bu góor ñu bëggoon a laaj soxna si ñii nga xam ne ñooy say doom bi ñu toogee fii di jàng alquran lan ban yëg-yëg nga am bi nga toogee say doom di tere alquran fii ci kanam mbooloo mi. kontaan naa trop kontaan naa trop gërëm mbooloo mi yëpp yëpp yëpp maa gërëm seen sëriñ maa ngi gërëm sama borom bu baax a baax a di gërëm di sant kontaan naa trop trop trop fu kontaanee kontaan fi toog tey sant naa la gërëm naa la kontaan trop. jërëjëf maa ngi sant borom kon lu bëree bëree bëree maa ngi sant oustaz kii oustaz bu daan jàngal xale yi maa ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram sa allah kon nag loolu moo doon jeetaayu tey bi mu mel ni seen daara lii moo doon lim leen indil di ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla may ñu fekke waat ko ay at yu bëree bëri incha allah ci yii ñëw danañ jëlaat ci yeneen daara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.